di di leen jaajëfal bu baax a baax mbokk yi ci ni ngeen àndee ak ñun seen télévision euh, Futurs euh, Médias di leen dalal ak jàmm ci. fàttaliku euh, mardi ji am mbégte euh, ñëwaat fii 15 euh, jours ca gannaaw donc ngir après 15 jours ca gannaaw ngir ànd ak yéen ci émission bi nga xamante ni mardi bu nekk lay am donc ci une deux fois par mois comme nañu koy rekk daal di waxee ànd ci ak suñu ay chroniqueur ànd si ak suñu ay invité te nag mbokk yi dañoo am mbégte dalal ki nga xamante ni kàngam la ci ramu rek daal di nekk ñëpp xam ko Sénégal njaay bi ñëpp ràññee ci liggéeyam mais aussi ci ci euh, dëgguwam ci euh, lenn ci ay sujets yi nga xamante ni ñu ngi koy rek euh, daal di indi yenn saa sur la place publique kooku nag moom mooy maître Doudou Ndoye daanaka sax kenn ko présenté mais tey incha allah dañu fas yéene daal di waxtaan ak moom ci yeneen i facettes yi nga xamante ni moom la ñu bëgg kon ko découvrir mais aussi wax ak moom lu jëm ci wàllum actualité peut-être balaa ñuy nuyu suñu invité Doudou Ndoye dañuy rek nuyu suñu chroniqueur yi nga xamante ni mardi bu ñuy toogee fii pour présenter den déclic ak ñoom la ñuy àndal ñu tàmbali ko ak ki nga xamante ni euh, léegi woowee naa ko comme l'homme ou euh, le papillon <laughs> en tout cas très élégant euh, chaque mardi bu ñëw déclic béggal suñu xol ak sañse yu doy waa en tout cas nee naan lépp daal du ci du ci doole daal ci xel la daal Charles maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu Makumba suñuy téléspectateur et particulièrement suñu invité maître Doudou Ndoye bu dee sañse daal moom foruma ko si suuf parce que dafa am fu mu ko jël te moom xamoon na si parce que sax changé wax bi ko for si suuf parce que daa fekk daa fekk que man ak maître Doudou Ndoye am nañ histoire boo commencé. Uh-huh. boo xamante ne ça commencé il y a 60 ans de cela. Uh-huh. ak Cedem te nag maître Doudou Ndoye daa bokkoon si Dakar waa suñu fi dàqoon solo si ñu bokkoon. Uh-huh. donc ñoon dañu yàpp si solo parce que dañ ne loolu mooy sa première identité xëy na l'habit ne fait pas le moine mais c'est par l'habit qu'on reconnaît euh, le moine ah, donc boo bëggee xam Dakar waa dëgg dëgg dëgg dafay xam luy sansé te nag émission bi booy dëgg kër bu ne mardi bu ne da ngay sanse pour que sénégalais yi di la seetaan accordé ànd ak yow mais may ma mën ñëw sam parce que maître Doudou Ndoye sam la parce que il y a 60 ans euh, këram fële ca la woon fële si Paul Hall fu jul moom fa laa waaw donc euh, kon papa la si man xamoon suma waa kër bu baax a baax xamoon sama papa bu baax baax maa ngi lay nuyu bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf kon daal tey da nga jàkkaarloo ki nga xamante ni da la xamal daal ba nga nekkee xale say affaire ak yooyu noonu. non tey da yow yaa am problème ak Makumba parce que ñaari Dakar waa ponkalu Dakar waa ngeen ñëw. ah bon ngeen yéen moom xam nga ay kaw kaw ay wala ngeen. <laughs> bu fi bu fi siñ <laughs> venant ah, en tout cas tey euh, wane nga ne euh, que ne donc euh, Dakar waa moo jàkkaarloo ak beneen Dakar waa dinañ am mbégte waxtaan ak maître Doudou Ndoye si li nga xamante ni moom mooy donc li nga xamante ni moom mooy vécu parce que maa ngi gis si présentation ñu ne il reconnaît que c'est un bon footballeur en dandy maanaam góor yi nga xamante ni voilà dañoo am seen taar mën solu te yëg ko donc maître Doudou Ndoye un dragueur un philosophe loolu la ñu bind ci présentation bi donc euh, euh un homme du monde donc si kanam dañuy waxtaan ak maître Doudou Ndoye ci loolu Makumba yaa ngi xool l'homme du monde de. Mhm. yaa ngi koy yër de. <laughs> xam nga nit buy bu ne man dama renko dama reconnaître que ne que dondi la. yow Diagne ba ñu ngi lay euh, fay. Mhm. nuyu Charles. di nuyu bu baax a baax nag euh, monsieur le ministre maître Doudou Ndoye. di ko sant bu baax itam ci nangu gee ñëw ànd ak ñun ci waxtaan wi tey jii euh, tey nag xaw ma yow ndax di nga nangoo doon kaw kawam déet Charles moom da koy wax di ñu ko ah, xase ñun nag euh, aw tagg <laughs> moo tax euh, xam naa kon deux contre deux lay doon ah, ñu xool ba xam fan lay mujjee incha allah mm-hmm. en tout cas invité bi ba ñu ko amee ma Makumba je pense que ñëpp dañoo ne am ngeen client bi nga xamante ni kenn du ko yekkale mm-hmm. waaw mat na gan ndax li ñu koy laaj néewaa na ci biir réew mi nga am ci ku ci am jaar-jaaram mhm. koo xam ni ca indépendance ba mu amagul ba léegi daanaka mën naa wax ni mhm. bokk na ci bëri na ku fiy wax ci wàllu droit mhm. moo la jàngal wala ka jàngal moo ko jàngal bëri na itam ci baro bi ñoo xam ni liñ ciy def Euh, bëriwul ma xam avocat boo xam ni njëkk na ko sol robb avocat fii ci Sénégal. Mhm. mën naa am mais man xawma ko. Mhm. dina si wax euh, euh, loolu yëpp parce que ne ngay jamono ji ñu fi nekk jàngal ne leen ba jàngal ñi leen jàngal donc tout à l'heure on va en parler maître Doudou Ndoye ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la sargal. di la jox sa wàccuwaay comme ni koy waxee di la dalal ak jàmm ci émission Déclic tey mbégte daal la ñu am jàkkaarloo ak yow. sa olof bi day neex na lool sa leer na nañ <laughs> wante nag maa la gën a bëgg mm-hmm. ngir euh, ñëw seen télévision bi benn jàppale sama rakk la mm-hmm. Youssou Ndour ba may doon magam mu doon sama rakk yàgg na lool ñu bokk ko ci sama kër ci sama taabalu añ di ko bokk sama bureau muy nit ku yaru ku xam am magam ku xam kilifa kon bu defee jëfu entrepreneur bay mën a joxe liggéey bu ñu si ooyee bu ñu ñëwee dañu jàppale loolu ñëw bi tam jàppale presse bi la parce que tam ñun bu ñu toogee suñu kër naan kilifa lanu wala ay màgget lanu ba duñu fekk si presse bi mu def liggéeyam jàppalewuñu ko man ma jóg minuit ma jóg deux heures du matin ma ñëw fii fekk si leen mbégte la si man ndaxte mooy sama wareef mm. jàppale Youssou jàppale presse bi moo tax télévision bu ma oo su ma ko mënee dama fay dem mm-hmm. parce que dañu war a jàppale presse bi mm-hmm. ndax rôle bi ngeen di jouer si réew am na njëriñ lool dañ ko yàgg sàggane c'est mm-hmm. tey jii jamono ji ñu toll ak jamono yu jëkk yi sax presse mooy tax peuple peuple réew mën a xam boppam parce que ku yóbbuwul nit joxoo nit la mu war a xam du ko xam te yéen ñooy tax nit ñi xam seen bopp ñooy tax nit ñi xam seen dëkk ku jàppalewul presse rek def nga erreur bu mag moo tax mbégte la man pour toog seen biir di wax yéen di jàng si yéen mm. di lu ma mën nag ma def ko si yarax taranga mm-hmm. jàng boobu nga wax sax maître Doudou yaakaar naa ne ñun ñii ak téléspectateurs yi ñuy setaan eh, yaakaar naa ñoo ci dana gën a profité parce que ba ñuy préparé sànq émission bi am na yu bëri yi nga xamante ni euh, xam nañu ko jàng wax nga ko ñu ñu yenn xamoon nañu ko mais yenn yi xamuñu ko eh, sànq maa ngi wax naan aujourd'hui sax tey euh, dina dormir je vais dormir moins bête parce que am na lu bëri li nga xamante ni waxtaane nañ ko sànq laataa ñuy dugg ci plateau bi te xam naa ne ci kanam danañ ko partagé ak suñu mbokk téléspectateurs yi eh, ndaxte émission moom euh, bu yeetewul rek wala wala nga jëlee ci xam-xam yaakaar naa ni euh, du ci am solo te tey jii nii lan mooy euh, objectif bu déclic dañ koy wax saa su ne indi fi invité ngeen jëlee ci information mais ñu nit ñu jëlee ci euh, information saa su alors tey nag avec la permission un peu des chroniqueurs on va peut-être indi lépp bu jëm ci wàllum cursus ak yooyu noonu dañ koy yóbbu ci ci ci ginnaaw jeexalee ko incha allah parce que xam ngeen ne actualité bi fa nekk actualité forte ñu ngi ci coupe du monde Sénégal digganteem ak euh, Pays-Bas mu daat cee rek euh, lanc euh, donc Charles fay xam ne bu baax a baax donc maître Doudou Ndoye je pense que footballeur bu mag la donc je pense que la première question si wàllu football la wala bon si wàllu football lay doon moom bi nga xam ne footballeur ba pare nekk dirigeant aussi mm-hmm. Mm-hmm. dirigeant aussi defe naa loolu war nañ ko xam bu baax a baax moom déjà gis-gisam si équipe suñu équipe nga xam ne démb la doon football contre Hollande yàlla def Hollande gagné ñu 2-0 déjà taxawaayu équipe bu Sénégal dem contre Hollande yow loo ko dundee match bi loo ko dundee loo ko gisee. Euh, man de dama bëgg ngeen jéggal ma. ndaxte euh, bu ma si Sénégal yi meree nag buñ ma meree si li ma nar a wax. Ah. Euh, ngir démb si 13h ci sama bureau nit seet si na ma ànd ak soxnaam nit muy. soxla boppam nag moo ko andi si man ba loolu jeexee ma koy gunge mu dugal ma si waxu football ma ne ko Hollande dinañu gagné 2 à 0 tey waaw waaw. mu ne ma lu tax ma ne ko équipe bi ñuy yóbbu baaxul mënul gagné Hollande loolu laa wax démb 13h moo tax bi Hollande marqué benn bi yem si maa ngi ñaan mu yem si sax ndax ma am gàcc. ndax ma am gàcc. Mm. maa ngi ñaan mu yem si benn bi. ndax ma am ci gàcc si li ma waxoon par rapport ak ki ma ko wax li nga xam ne wax naa ko ko bi Hollande marqué deuxième bi ma ne man ndekete juumuma c'est boo déglu boo xoolee tey télévision yëpp déglu chroniqueurs yi déglu les consultants ñi si wax yëpp di nga gis défaut yi ñu wane yëpp si match démb bi man dama koo gis si classement bi ñu teg kese parce que man sama àddine bal la damaa xam football dama ko dunde ba tey jii football mosa bonde maa nga fa ba may juddu ba may nekk si mbedd mi ba may jàng lycée ba may dem université amul fu ma ne si bokkuma si équipe bi di football ba football bi jeex ñun ñuy football football bu màgget yore nag équipe yi ba 65 ans ñu ngi football 90 minutes ñun mag ñi stade Demba Diop <laughs> ba may am 65 ans on faisait 90 minutes chaque matin de 10 heures à midi Ah sama loxo bii damm moo tax ma bàyyi ko dama fa daanu mu damm euh, ñun waa Jeanne d'Arc ak ña gañe woon jeu de l'amitié 1963 ñu ngi nii mm-hmm. boo xoolee tur yi mm-hmm. ñooy sama génération football maa nga nele si kaw à droite ñi taxaw fële à droite taxaw maay catlu fële boo xoolee si suuf ñoom Demba Coy la ñoom Suuri Malick si Suuri maa ngi si suul mu ngi nii sukk ah moo sukk nii sa ginnaaw yor ballon bi ah. moo yore ballon bi hmm. à sa gauche euh, Baye Moussé à droite Demba Coy Demba Coy moo ak Baye Moussé ñoo jëloon l'aile droite quand le Sénégal a joué contre la Guinée et que Sékou Touré disait la jeunesse révolutionnaire a battu les réactionnaires Guinée ñëw Sénégal 1962 mm-hmm. Alou fekk dañ ko suspendre à cause des événements de Mamadou Dia mm-hmm. Sénégal réclamait Alou ñu jëli Alsane Ndiaye mu ñëw di dox si yoon bi na mu daan daagoo pour faire le reportage de ce match laay jaww ngi may déglu mhm. ñoo daan bokk football ba 65 ans xam na li may wax ñoo ko bokkoon tam ba allu demee ba ñu dóor Guinée 4 à ñii la équipe bii la ñooy sama génération mhm. man nag nekk moon international mais ñoo bokkoon dans les équipes locales Jeanne d'Arc Gorée mhm. Foyer et cetera yow ban poste nga daan football man à l'époque j'étais demi centre mooy libéro tey mais ba ma nee ba nekk dama jël aile gauche moo tax bi ma gisee ne Sénégal ngeen baal ma de ailier gauche wala ailier droit buy yéeg dem renforcer attaque am newu ci laa ne Sénégal mënul gagné. Hmm. Hollande jeex na parce que tey les la les latéraux. les hmm. ñooy dem di pousse ailier droit yi di renforcer l'aile digg bi nag digg bi nag di leen mën a remplacer bu amee contre-attaque. Hmm. le football moderne c'est le football des latéraux ñun ba ñuy nekk xale. latéral place am lay taxaw du avancé. benn waaye moo ko mos def muy Henri Diop. Jeanne d'Arc arrière droit di dribbler ba camp adverse ba marqué foofu bi benn yoon la mos a am Sénégal en 30 ans. mooy sunu époque ñun dañ naan taxaw benn ku ñëw nag ñu jaay la doole nag fexe ba nga réglé. ñoom suuri di marqué bii ñun ñuy damm nit ñi si ginnaaw. yéen a a doon ñun dañ lay ah choc. daf la tàggal grisé Ablaye Diallo si gënoon ay yàlla jël na bakkanam temps yal na ko yàlla yërëm amiin amiin Ablaye Diallo si gënoon ay bu defee tàggal grisé nga jaaxle dañuy dugg waa ji ba mu doylee ñun défenseur <laughs> défenseur noonu lañ daan footballé mais léegi yooyu défenseur jeex day évoluer boo leen xoolee suñu match football démb xoolaat leen ko latéraux yi doo leen gis kenn ku dem nekk ailier dem di dribbler ba sa cat la wàcc xool leen Paris Saint-Germain arrière droit bi le marocain lu mu tudd ci Hakimi xool leen mooy toj caax yi day marqué bi rek c'est day dem marqué di ji mais dinañ fexe ba bu ñu amee contre-attaque gars yi dinañ ko xaar place am ba mu dellu mhm. on mais yow léegi noo gisee kon Sénégal li des ci coupe du monde bi Qatar ak euh, sunu troisième match li si des mooy qu'on tire leçon de notre échec d'hier parce que tam loolu mooy sport sport ak politique a yem sportif mooy bu ñu la mënee tey si box dóor la ba nga tëdd da xool waa ji ban fot nga def bu mu dóor la peut-être que euh, boo xoolee boxe euh, Mike Tyson ba muy boxe sax l'anglais un anglais noir la mm-hmm. il sortait de prison waaye ji ne ko nag dama lay dóor parce que mu yaa ma dóoroon mu mu wóolu boppam trop trop nag daal di ñëw ñu kawoo ko. Hmm. mais il a dit que dafa óolu woon boppam trop. Hmm. il croyait que dafay ñëw rek door waaye. Ah, daal parce que bu ñëpp pronostic yeeg yëpp dañu naan ah. Sénégal Sénégal oh, Sénégal si xool loolu défaut yi. c'est ça boo xoolee milieu terrain bi wax nañ ko nga xool attaque bi wax nañ ko milieu terrain bi mënul téye dara milieu terrain défensif la. Hmm. ñetti milieu yëpp défensif du ñu. duñu lu biir kat. attaquant yi benn attaquant du si buteur réel même Ismaïla. Ismaïla Sarr du atta du buteur. c'est un organisateur. Boulaye mooy buteur bi. waaw mais Ismaïla Sarr du buteur day déstabiliser. joxe si def na ko ñetti yoon wala ñaar yoon. mais bu àggee si but dafay sonn mais il déstabilise il donne et il très bon. Mhm, mais du am kenn kuy lakk caaxi daal. am amuñu buteur. voilà c'est ça. c'est tam milieu de terrain buy préparer buteur. défenseurs yi latéraux yi duñu dem. donc tout ça c'est à réorganiser équipe bi nit ñaa nga fa. Mhm. ça c'est le travail de l'entraîneur. ku lu ñu la santal yàlla bi mu nekkee leçon nga réorganiser sa bopp seet ñi fi nekk nooy changer Sénégal mën na gagner euh, Qatar Sénégal mën na gagner Équateur mais à condition ko défo bi ñëpp wax tey c'est man démb avant match bi ñëw ma wax ko nit dama ko lu tax si sama bureau yàlla xam na loolu bu ñu gisee défaut yi rek Saliou sa gis na ko tam nee na fotom la wax na ko defe naa hmm. donc na seet naka lay réorganiser équipe doole Sénégal mën a feeñ. kooku nag rôle entraîneur bi la. mais démb nag gars yi dañu mën. vendredi dinañ xam euh, un peu ndax euh, dina dina changer tactique. ah el tactico ndax dina changer tactique. Hmm? gars yi dañu mën. Hmm, dañu mën. bon ah. waaw euh, peut-être wax nañu tam union ni ngi wax union derrière les lions ñu ngi koy wax union bu bëri. union derrière le lions comme bon yow loo loo ne comprendre d'ailleurs union derrière les lions loo koy comprendre. ah mooy li ñu def nii ñun euh, gëm nañ suñu dëkk gëm nañ suñu équipe de football ñu ngi koy ñaanal yàlla mu gañee mais du tere nag ñu mën a gis ay fotom ay defoom loo bëgg bëgg sa doom ak sa njaboot gisal seen i erreur nga jàppale leen dimbali leen ñu corrigé ko sama doom fi gën sama doomu fi gën sama doomu fi gën si mu ngi def musiba guddeeg bëccëg wan ko musiba gi kañ yar ko ne ko dimbalil corrigé defal ñun ñëpp ñu ngi si ginnaaw lion yi mu ngi si loolu parce que bu Sénégal gagné. suñu ndam la mhm. dañuy kontaan. di bëgg suñuy joueur ñu gën leen fonk ci monde bi ñu gën a am xaalis man a gën a dimbali seeni mbokk parce que loolu tam ci la bokk. fexe ba sa mbokk am xaalis yi mbokkam ñu réussir coupe du monde parce que coupe du monde ku fa réussir ñu remarqué la. Mhm. bu la remarqué sa valeur marchande day yokku bu sa valeur marchande yokkoo mais si da koy gagné est-ce que xam nga xool ngeen la nombre de brésiliens. Mhm. dans l'histoire de football. qui ont envoyé au Brésil des centaines de milliards d'argent d'euros ou de dollars parce que football moo tax Brésil ñu xam ko de. dëgg la les coupes du monde. je crois avec le avec Pelé mu feeñ. mais depuis lors le Brésil devient une puissance mondiale. par la publicité. qui est autour du football. Sénégal tam football bi tax na ñu gën ko xam nos joueurs ki sont dans le monde tax na gën a fonk Sénégal di gën a may xel Sénégal. Mm. donc ñu ñëpp dañu war a jàpp di ñaan yàlla suñu équipe corriger ay erreur am. Mm. fexe ba gagné gën a yëkkati suñu dëkk. et justement yaa ngi wax loolu ça fait depuis euh, la mooy génération. Euh, El Hadj Diouf depuis 2002 donc ça fait 20 ans yoo xamante ne Sénégal def na si euh, ñetti coupe du monde gagné na fi coupe d' Afrique. oui joué ci diggante ans yi trois finales de coupe d' Afrique. c' est benn victoire c'est magnifique. mais léegi ñun derrière est ce que def nañu conversion boo xamante ne moom nga doon wax loolu mooy la conversion économique ba nga xamante ne si gannaaw di nga am loo xam ne moom la ñuy teg pour que enfin nit ñi mun a dund di sport sport local. non ñun ñun dañoo am benn benn problème fii. avec le sport avec le football surtout parce que mënuma ko sport yëpp euh, football laa gën a miin moom laa gën a xam ay affaire am mm. mais avec le football nous avons un gros problème le football a toujours été une activité amatrice amateur la ñu mës doon moom la ah xam amateur nag bu mi-temps jotee da ñëw yor sa pañe rek a orange ku ne nga sànni ko benn ñu noonu leen daan defee xotti sa orange rek rayante ko dugaat si teg bi mm-hmm. alors euh, nga xam ne ñoo fi ne nekk ci commité directeur bi dañ fi nekk 30 ans duñ fi jógee parce que amateur la et seen xaalis yu sew la ñuy may xale yi ay paas yu dem ak ñëw ba ñu ñëwee nag ba andi football professionnel ba andi football professionnel man dama si bind téere def si conférence ak Jeanne d'Arc ak Souris ak Ndiogu Samb ñoo ma invité hôtel Croix du Sud ñu def ci conférence c'est foofu la football professionnel bi jógee nag ci conférence boobu après ñu bind si téere maak professeur Abdoulaye Sakho bi nekk université defe naa ne couverture u téere bi sax yónnee naa ko maam Biram Diouf mm-hmm. alors léegi football professionnel ñëw na mais football professionnel mooy équipe bu football bi dañu koy moom dafa mel ni ki moom télévision dafa mel ni ki moom table bi équipe football marchandise la mm-hmm. marchandise la da koy nangu dañ koy moom maa kumba béy mii am na alal ñëw gis équipe bu ko neex mooy naan saa yi dama jaay seen équipe bi mm-hmm. cent 500 millions CFA ngi nii jaay jaay leen ma jaraaf ngeen nangu ko ko jaay ëllëg man ma ñëw ne ko milliard a ngi nii jaay ma say droit si jaraaf. Mm. maay commandé jaraaf maa ko moom. Mm-hmm. maa moom joueurs yi c' est des donc mm. loolu mooy football professionnel. c' est bu ñu ko defee nag les hommes d' affaires sénégalais yi nga xam ne ñu ngi fi yori milliards. kan ngeen si dégg mu ñëw jënd équipe malgré le football professionnel ko leen si dégg mu jënd équipe parce que bu ñëwoon tey di jënd équipe yor milliard am ña mu fa fekk esprit amateur bi ne seen xel bi ne seen xel lañ koy opposé waaw doo fi ñëw ak sa xaalis di ngan ngan lu suñu kaw mhm. nangu suñu équipe ñoo ko defar ñoo fi nekkoon esprit amateur boobu la man dama ko vivre ba pare moo tax li may wax dama ko xam bugguma tudd tur bugguma tudd équipe andi naa nit pour ma andi alal pour jënd benn équipe bu nekk deuxième division ah. mu yàqu parce que esprit boobu la. waaw boobu sax presque disparaître léegi fàtte nañ ko. parce que su ma ko waxee tudd tiru nit. la non non du gendarme. non du gendarme du gendarme Bilay du gendarme. non du gendarme gendarme du comité directeur. et en même temps leur avocat. du gendarme pour les enrichir en tant euh, ah, que tudd man luy yàq nit du ma ko def. luy yàq turu nit wala di wàññi nit bokkuma ci. dëgg la mais est-ce que defuñu la charrue avant les euh, les mooy maanaam boo defee boo defee professionnalisme ba pare ñu nekk ay association du point de vue juridique foofu est-ce que amul fa loo xamante ne la marchandise mënatul exister loolu nag moom laa tuddee si livre boobu ma wax la gestion sportive différente de la gestion financière hmm. parce que léegi man exemple modèle bi nga xam ne moom la ñuy utiliser actuellement supposons yow homme d'affaires nga créer benn société anonyme société anonyme société business la pour gagner xaalis kese la ak pour defal xaalis def ci sa milliard ne man sama société bii anonyme bii mooy jënd gendarme exemple hein wala mooy jënd jaraaf mm-hmm. bu jëndee jaraaf moom moom xaalis bi moom moom joor yi wante waa jaraaf ñoom xam nga existé nañu ba pare mm-hmm. si seen association am na ñoom ñooy des nekk association daal la jaay les droit si jaay droit boobu nag ngay exploité marchandise bi di leen si jox wàll. mais marchandise bi yaa koy moom yaa yor droit yi waxtoo neex nga jaay ko. ñoom nag seen association bi fi desoon du tas. daf fi nekk di la gunge di la jàppale si sport bi ak ay supporters am mais nag marchandise bi joueur yaa koy jaay yaay jindi joueur yaay fay entreneur yaay yor alal ji yow la. si contrat bi ngeen signé nag ba nga man def loolu si la ñu am seen wàll. si li ngeen négocier man mos naa toog benn bureau sama bi ma nekkee avocat wu barreau de Marseille am na époque boo xam ne euh, l'Olympique de Marseille da doon effondré wu. am na époque boobu c'est les années 92 93 l'Olympique de Marseille da doon effondré wu si suñu bureau avocat on était des supporter de l'OM le club de l'association des supporters ñëwoon nañ fa. maa sama associé qui était bâtonnier à l'époque pour ñu mën a organiser naka ñun lañuy bokke si ñuy jënd une des une partie une partie des actions du club mais bu ñu jëndoon une partie des actions tam y a l'actionnaire majoritaire mm-hmm. parce que actionnaire majoritaire Dreyfus bu ñëwee ba def si alalam yépp moo yor pouvoir bi ñun dañu nekk si biir minoritaire di ko contrôler yenn saa yi ñu ñam si ay avantages il faut ñu nangu ne c'est le professionnalisme borom alal bi mooy commandé mu andi milliard am mais bu fekkee ne milliardaire u sénégalais yi bu ñu ñëwee bëgg a jënd club football. dañu fax ay problème yoo xam ne. problème mu euh, maa fi nekkoon 1950. sama bàyyi doon marque bi 1960. Mm. ah lu tax ngay ñëw tey bëgg a nangu suñu mm. club. Mm. mais du fi def milliard am moo tax gisu leen benn milliardaire sénégalais ñu ne moom moom club nangam. kenn gisu ko fi. dañ rek club professionnel la mu ngi football. mu ngi jaay joueur mu ngi lii mais ban Sénégalais milliardaire ngeen ma mën a cité mu jënd benn club professionnel yor ko or Europe club bu mu doon tey Chelsea ñu ngi koy jaay xam ngeen ko Liverpool Liverpool ñu koy jaay ak ak ak tey Manchester United alors c'est da nga dañ naan diw koy jënd PSG du Qatar waa Qatar ñoo ñu ngi jaay ay part dañ naan diw koy jënd mm-hmm. c'est que ñun dañuy dugg si lëf ba pare bañ ko mm-hmm. <laughs> dafa mel ni ñuy dugg ba pare bañ booy dugg si lëf danga koy xam nangu mm-hmm. def ko génne njariñ li pour réew mi la preuve mooy tey malgré tous les clubs qu'on a gisul leen fi benn match football bu bu stade fees. xanaa nawetaan a xeex. bu dee nawetaan yuy xeex moom day fees del mm-hmm. mais bu dee match normal doo fi gis. stade mais xam ne gisoon naa quand même Ligue 1 bi xawoon na yëngu tuuti ñu commencé woon dafa dafa jékki saay rek ne. boobu la. man j'ai été membre du comité directeur de la gendarme pendant six ans. Mm. si laa bàyyee lépp nag. ah ba pare yor seen i dossier judiciaire leen ameele xaalis maa mm. ko toppatoo ba encaissé xaalis bi yëpp ba joxe lépp ba dërëm manqué ci manqué wu ci mais pendant ces six ans là on a souffert d'histoire kenn mënul jubóo sa morom mm. bo koo fi andi tam mooy daf koy jind mais loolu la fekk loolu fekk histoire yi esprit amateur boobu nga xam ne ñun moom la ñu nekke woon ñun man sama bopp parce que temps bi may football gendarme man ak ñoom Malick Sy suur yi mm. Adrien Fall moo doon sunu président Pape Gabriel Gabriel maak moom si photo yi sama photo lycée yi. yi ma leen jox. moo su sox man mm. dañ naan paasante ay veste di abalante moo tax ñu nekk ay dandi <laughs> entre du man rek maa doon dandi kuy sama génération Dakar <laughs> dandi nga kuy sama génération Dakar dandi du àbb lan dandi du àbb moo tax tey nit ñi la ñuy sol moo tax nit taxawal moo tax nit ñi tey seen sol baaxul parce que nous on était solidaire luy <laughs> solidarité très bien répondu xam nga luy solidarité mooy man sama bàyyi du am alal may senc bàyyi la ngay sama xarit du sol yére yu bon parce que moo am si réew mi tey Mm-hmm. <laughs> loolu ne si réew mi. mais mm-hmm. sa bàyyi am alal ngay sañse di yor oto yu rafet bàyyi say xarit yi nga màgg lool ñuy dee xiif. Uh-huh. kii maax moom a judd maax yaay may sama mag. Mm-hmm. ñoo bokk fa nu juddoo sa koñ ba. ñun ñëpp daan sañse. nee naa ko léegi anu sa yaay elle élégante elle était suñu jamono la woon doo bàyyi sa moroom ngeen di dem baal. man ba ma nekkee lycée. am na ñoo xam ne ñu may dinañ ma xool te ñu may dégg. dañ naan def chaque année lycée Van Vollenhoven bal de fin d' année. am na ñoo xam ne sama kër la ñuy ñëw. maa leen di solal simis takkal leen karawaas solal leen veste. Ah, ànd ñoom bal yi lycée. solidarité solidarité la woon entre dandis. <laughs> pour kenn du salte kenn du ñaaw. kenn du salte kenn du ñaaw. Oh. sama génération koo si xool muy dakaar muy France yére bu rafet la sol. ku mu doon hmm. yére bu rafet la sol lan la maam fukki veste. sama doomu ni yaay toog fii amul veste bu mu sol. a sol veste yëpp sax. du ma ko si jox benn. bu demee doxaani dellu si delloo ma ko <laughs> ëllëg mu amal ma daal la ma doxaani ñëw delloo ko mais noonu la woon jigéen ñi tam mais on était solidaire duñ doon ay benn classe sociale la ñu <laughs> bokk ndey bokk bàyyi ñun ñëpp di bokk di baal di bokk di lekk di séddoo xaalis yu sew yi. ñuy def dund loo fekkee daal. philosophie de la dund loo fekkee. Dakar yëpp la woon nag du woon man de. <laughs> Dakar yëpp la tey koo fi oo muy doomu Ndakaaru nekk sama moroom li ma la wax la li ma wax la et puis c'est c'est une vérité parce que même ñun ñi sax euh, ba ñu nekkee gën a nekk gone sax dañ ko doon defante abante yére yére entre copines pourquoi de dire abal abaluñ ma yére uh-huh. il faut être complexé pour ne pas le dire très bien nit ku nekk am nga foo juddoo ba foo màggee non mm-hmm. dama yaakaaroon ni ci ñun kaw kaw yi rek la yam non non ñu daan sol yeen kaw kaw yi solo leen ko parce que temps boobu yooyu ñu daan sol nekkul woon kaw <laughs> liñ naan sol fii la woon rawul dóobri la woon amul woon kaw. George am na bi ñu am. Pat ah. boobu. Ah. fa jënd yére yi amul benn magasin boo xam ne génn na avenue William Ponty bii. ak avenue ak avenue Lamine amul benn kaw kaw daaw ko sol sa kaw ko kaw kaw bu ko sol Ndakaaru la ñëw ñu jàngal ko ko mu sol ko parce que mooy suñu waru gar dafay ñëw ñu fat ko suñu kër ndey suñu kër bàyyi. Uh-huh. muy jàngi. Uh-huh. ñu koy jox muy lekk. di ko jox muy naan. di ko jox muy solu moom muy uh-huh. lañ ñu yare mooy sunu aada te looloo defar ndakaaru nag. Mhm. et on en est e et fier et content looloo defar ndakaaru <laughs> ku mu fi doon ñoo ñoo la fat uh-huh. fat kër a jur uh-huh. ku mu fi doon ndax ñoo fi jiit uh-huh. loolu rek la nag jàppale la ñu ñëw ci beneen beneen léegi na ñëwal beneen thème booy. <laughs> wax nga ko léegi abordé nga ko sax ci sa introduction bi ngay eh, bi ngay euh, nuyoo nee nga presse dafa am solo. ci mhm. réew. am ah, solo ci démocratie ñun ñu yàgg ko négligé. Mhm. tey jii bokk ci actualité wu presse bi journaliste bu ñu tëj muy Pape Alé mhm. ndax dañuy wax ni dafa def divulgation de secret militaire recel de documents administratifs ak euh, diffusion de fausses nouvelles est-ce que yow li nga suivre li xew ak rapport bi mu traité moom ci boppam jàpp nga ni charge yi nga xam ne moom lañ koy toppee luñ ko war a toppee la wala déet. Euh, si li ma laaj dafa am ñaari domaine mm. euh, benn bi mooy. inculpation yi nga tudd yi nga tudd diffusion de fausses nouvelles recel de documents administratifs et cetera divulgation secret divulgation ay inculpation mooy benn domaine bi c'est du droit li ko jur nag li ko ëmb c'est la presse euh, bu dee problème droit kese bon boo ne nit def na recel recel recel mooy da ngay jël lu nu sàcc hmm. c'est xam nga ne dañ ko sàcc ba nga koy jël. da nga koo jënd wala da nga ñu may la ko mais xam nga ne dañ ko sàcc. Ah, mais il faut nga sàcc jàpp sàcc bi ba mën a prouver ne sàcc nañu ba pare mhm. nga soo ko seeti receleur bi mhm. bon c'est gisuma ne si dama dégg de gisuma fu ñu jàppe sàcc kon kay def enquête bi moo koy seet affaire am la mhm. du ma si sori si loolu euh, diffusion de fausses nouvelles kooku dafa mel ni hmm, océan océan Pacifique. Mm. océan Pacifique moo gën a rëy si océan yëpp mm. pratiquement surtout la. loolu la neex nga dugal si biir. Mm-hmm. yaa ne bopp diw dafay metti sax ñu ne fausse nouvelle la si réew mi dindi la boo xam ne ba nu ko àndee ba tey si Sénégal gi koo xam ne yaa ngi xeex liberté yaa ngi xeex boobu délit pour mu jóge fi le délit de l'article quatre-vingt du code pénal ñëpp nga koy xeex depuis cinquante ans pouvoir bu ñëw bàyyi ko fi di ko utiliser boo waxee lu ko neexul rek mën la yaa toj mi waaw ah, mais yow bu ma la contrer yow du ma diffuser nouvelle bu lay daaneel. Mhm. même si elle est le mensonge fait partie de la politique. Mhm. le mensonge fait partie de la politique ma affirmé loolu parce que pour defar réew yenn saa yi nga fen réew. Mhm. yenn saa yi nga wax lu dul dëgg pour calmer sa réew. olof nee na. fen guy yàqu guy defar moo moo gën dëgg bu mhm. si politique la bokk mhm. donc mensonge c'est pas un délit mensonge du délit kenn du si tëj nit parce que da nga fen alors on utilise l'article 80 on utilise les on utilise les di jàpp ay nit daa nañ koy def politiciens yi c'est pas normal nga def ko politiciens yi c'est encore plus anormal nga def ko journaliste mm. parce que rôle journaliste dëgg mooy seeti information fu mu ne mu jëli ko fa loolu loolu journaliste fu information nekk war na ko fa mën a jëli bu ko fa jëlee nag war na fexe nag dans sa déontologie ba réew mi gis ko mm. loo xam ne nag moom si boppam xam na ne yow mii réew mi boo leen gisee lii mën na toj réew mm. moom déontologie mooy am discipline boppam mm-hmm. pour téye ko mm. mais sañ na ko génne moo tax boo seetee les grandes démocraties muy France muy Angleterre muy Amérique saa yu amee affaire bu garaaw presse bi jot ko. ñoom dañu am filière yu ñu wax grand journaliste yi. nañu ne leen point bi dimbali leen bu ko kenn teel a yëg. Mhm. denc leen ko ba lii parce que boo leen ko waxee léegi mën na taal dëkk bi. Mhm. Mhm. dëggoo ak ñoom parce que tam. muy responsabilité journaliste bi. yore réew yore réew loolu si la bokk. da ngay mën a déggoo ku mu doon. pour lu war a yàq réew mi nga déy ko ko ne ko dimbali ma ci rek téyel ma ko ba si kanam. mais mënoo ko ne amuloo droit génne ko. journaliste, il est fait pour informer. Il est fait pour chercher le fait et pour le porter à la connaissance du public. Parce que public bi moom moom réew mi le peuple est souverain. Si le peuple ne sait pas ce qui se passe sur son territoire, il n'est plus le peuple souverain sur son territoire. Mais yaa ngi wax euh, ki sàcc maanaam euh, ki sàcc euh, jaay recel bi ki ko def. Mhm. ba léegi jàppaguñ ko dégg nañ ci conférence de presse bi tey Ousmane Sonko mu ni moom moo njëkk a publier moom moo njëkk wax ci document bi lu tax jàppuñ ko est-ce que kon moom dañ ko waroon a jàpp logique pour logique. non man euh, mënuma dugg si waxu diw wax boobu loolu moom duma ci wax duma la si tontu nga baal ma parce que ma ne diw dañ ko war a jàpp di war ñu ko jàpp loolu sama du sama cër man ci fi ma toog si sama cër fenn diw war nañ ko jàpp di war ñu ko jàpp. même néew ma sax Papa Alé ñu ko jàpp xam lan laa wax. Mm-hmm. waruñu jàpp benn journaliste bu informé tudduma turam. Mm-hmm. man duma ma tudd turu nit ci sama débat parce que yëfu nit dafa nekk loo xam ne boppam la ak mbiram dépassé na ma man man damay wax la nga xam ne ñëpp mën nañ ko mën a bokk. Mm-hmm. loolu ma tax a jóg de. doo personnaliser débat yi daal. déedéet lu ñëpp mën a bokk rek lay wax man. c'est nag invité naa ko mu neex mu fekk ma si lu ñëpp mën a bokk. du ma dugg si fu ku ñu jàpp ku ñu jàpp c'est pas mon problème kenn du si dégg mais li ma wax mooy journaliste métier journaliste mooy seeti information jox ko nit ñi kenn waru si jàpp benn journaliste sama wax leer na kon kañ ko wanee bu ñu jàpp kenn kañ ki ma tuddul tam nee naa bu ñu ko jàpp waaw kon kon dafa am si euh, code de la presse benn article mooy l'article cinq justement teg ay disposition si loo xamante ne journaliste yi moom la ñu war a liggéey ak lu ñu warul lu mënul liggéey euh, mooy wax nañ ci euh, euh, instruction secret de l' instruction secret de l' enquête wax tam si loo xamante ne si wàllu secret lay lay dem mooy top secret wala confidentiel saut de la confidentialité wala ay bërëb yu ñu dul dem mais est-ce que justement article boobu du ba no problème bu muy buy fixer ay limites alors que le journaliste si boppam ñaari benn affaire war na ko am muy le droit à l' information à l' accès à l' hmm. leneen loo xamante ne tam dañ ko war a voter promulguer ko pour mu effectif. kaay kaay ma wax la dara lu xew suñuy loi ñun question bi mu pose dafa intéressant dafa dépassé kaw journaliste. loi bu nu manti wote Sénégal bu mu doom euh, un nombre de temps pour cent de députés am na droit. xool ne loi bi awul yoon mu yóbbu ko conseil constitutionnel nekk dama bëgg nga annuler ko mooy le en constitutionnalité c'est tant que conseil constitutionnel waxul président de la république amul droit promulguer loi bi kon loi bi amagul kon député yi sañ nañ ko bu rombee député yi ba defuñu ko parce que ñu si bëgg ñu si ëpp nag xamuñu loi xam nga ne député yi ñu fal fii temps yi <laughs> du ñoom laa yaakaar man deen dégg samay loi dëgg dëgg maa wax loolu te ñu may dégg. du ñoom laay yaakaar di leen dénk samay loi li ma wax leerul. Ah, waaw mais Sénégal mais parce que xamuñu loi yi du seen métier il faut de la technicité. tu vas voir un député français xamul loi xamul lu ñu ko jox. Hmm. dañuy seet ku mel ni man de ko attaché parlementaire mu jàng droit ba yor nekk docteur en droit ñu jox ko bureau ci assemblée bi di ko fay jox ko oto jox ko lépp pour député bi du ñëw si moom moo koy xoolal. wax ko hmm. mais comment député yuuxu lañ jox la ko man dama toog sama kër Abdou Diouf fexe ma doon député Abdou la neexoon du kaneen alors ñi fi nekk député yëpp seen patron la neex du keneen patron bi lay neex mu def liste cordonnier bii ne ko député nga loo si mën aja aram jéen sama yaay ju baax ja xam ne mënoon bind turam hmm. ABC mënu koo wax nga def ko député jox ko loi deux cent pages mu la koy signé hmm. maa ko fekkee sama yaay la première député bu déggul français nekk jigéen waa nga député yi nekkul déggul français bu ñu bind seen tur ngay jox loi wu 200 pages nga xam ne étudiant en droit bu am maîtrise nga jox ko du si xam mhm. ko xam wax naa ko. kon dañu waroon renforcer. Ah, mais député yi dañ leen di jox doole bu ñu xamee loi yi. Mhm. te doole yi xam rek la. dañ leen jox attaché parlementaire yu am xam-xam yu jàng droit nga xam ne lu ñëw ñu mën ko xool analyser leen ko expliquer leen ko. Mhm. loolu la France def loolu la Amérique def loolu ñëpp def. parce que député politique la. dem si mbedd mi teg say buuli ceeb teg say cere weeru koor di joxe xaru tabaski yi mais dañ lay woteel moo jaadu nag kuy toppatoo say mbokk ñu woteel la waaw ñu woteel la yóbbul assemblée nationale nga da ngay wote da ngay wote di wu 17 xam ne droit adduna bi yëpp ngi si biir ñu la jox moyen nañ ko joxe président la république sa palais mu yor fonds secret dañu war a joxe député yi moyen pour ñu wale maanaam woteel réew mi lu jaadu léegi nag ma andi ci question ci question waaw ma ma jeexal question bi bu yëfi rombee député yi nga xam ne defuñu loolu yow Charles ëllëg ñu toppala si loolu en tant que journaliste man nga def même chose man nga yóbbu affaire bi conseil constitutionnel ne texte bi nu bind ça viole la constitution parce que le secret professionnel dañ ko interdire dans le code de procédure pénale mais ñañ ko interdire dëgg Ah, ah, le secret de l'information la bëggoon pas professionnel le secret de l'information juge d'instruction bi yor dossier secret bi mais kañ koy interdire mooy ku mën a accéder au dossier bien juge yi ñooy accéder au dossier et les avocats et le greffier ñoom ñooy accéder au dossier donc bu secret génnee ñoom la kon que ñu interdire ko pour bàyyi juge bi mën a def liggéeyam normal jaadu na mais journaliste bi nekk si mbedd mi dégg benn wax fële xëy suma ne dégg naa wax bii kooku nga naan secret d'information nga génne dafa bokk secret bi ba koy génne ça veut dire que ba ñuy bind loi boobu comme li ma la wax sànq rek hmm. dañuy xalaat olof bind ko en français malheureusement maanaam mooy tubaab bi leen déggul ba pare ah. di bind droit ñu si ñu si ëpp ñuy bind droit Sénégal 80 pour cent yi déggunu français bu ñuy làkk français nga déglu leen dañ ko déggul parce que français du ay moo rek culture la culture français la ñu amul phrase yi ñoom mu ko dàq bind foofu mais bu ñuy làkk nga xam ne amuñu culture français mm-hmm. c'est tout c'est droit nag c'est du droit écrit en français code civil français boo ko xoolee xam ne ñun mun ñu koo bind 1804 mm. dama laaj chancelier d'Aguesseau ak ñi bind code civil français phrase yi ñu ko bindee droit français pire ngay dégg ba mu wér. soo soog a mën a bind droit. Mm-hmm. moo tax peut-être lecture droit yi du bokk yenn saa yi. mais parce que dégguñu français. voilà c'est ça du question lecture droit dañu liirul droit. parce que dégguñu français. du lecture droit dañ ko déggul dañ ko xamul. dafa mel ni rek ñay piloté avion. Mm-hmm. am na ñoo xam ne piper la ñuy dawal avion benn place sax benn nit. ak kuy dawal avion ñetti place sax benn nit. ak kuy dawal Boeing 737. ak kuy béyoon dawal 747. mais dañuy benn. Mhm. toutes les sciences du monde noonu la. Mhm. docteur interne biy soog a dugg. Mhm. biy soog a dugg hôpital nekk interne. day faj. mais interne la. docteur ba nekk patron dañu mën a yem xam-xam. ko bokk. ka ko jàngal université dañu mën a yem. mais matière bu mu doon dafa am amul benn matière boo xam ne amul amul ku si gën suufee. ki la sut ka la sut ka la sut ka sut. bu loolu amul nekku leen dans un domaine scientifique waxtaan ngeen nekkee science bu mu doon dafa ay patron bu mu doon nag. Hmm. mais progressé ba léegi avec la. léegi nag texte boobu ces règles là peuvent être contraires à notre constitution. oui parce que mooy mon avis. c'est mon avis aussi. mais mais il pas que ça il y de textes au Sénégal qui ne répondent pas aux aux normes aux normes constitutionnelles. Mm. mais amul kenn ku ko vérifier amul kenn ku ko attaqué en a plein et mm. li gën a li gën a gën a graaw si Sénégal. Mm. laa lay bëgg a wax exemple bi wax la ko. sa sa sa buntu kër am na boutique am na boutique bu ñu fi jaay foofu. boutique booy jël boutique koñ. waaw gis boobu. bés bu fay loyer loyer locataire. fayul ngeen koy xëccoo. Mhm. wala mu wala nga jaay ko marchandise fayul ngeen koy xëccoo. Mhm. tribunal bi ngeen di dem Sénégal gi mhm. lay jeexal seen laayoo Abidjan la. maa la ne Abidjan la dinaa la ko démontrer léegi. boobu boutique Abidjan lay jeexal laayoo ak yow boo moomee kër gi. waaw ba nga defee loolu ànd naa constitution loolu moo mën a nekkee. Sénégal ko woote Sénégal ko Séné waaw yéen da nga xamul ne li xew si réew <laughs> loolu lañu Sénégal amul kenn kuy jaay Sénégal c'est échappé si loolu amul kenn kuy commerce Sénégal amul benn industrie amul benn boutique amul benn locataire commerçant bu échappé si li ma wax c'est ça existe au Sénégal depuis 1998 nga may laaj loolu tey. yow mi dugg ci constitution yi di ma wax nationale di ma wax lu na ko ma di nga ko dama si ñëwaat. waaw waaw parce que moom dafa doon wax affaire lecture loi. Euh, balaa peut-être ñëw ci ci. Euh, dama siy ñëwaat. waaw di si ñëwaat wax la lu tax ma ne c'est contraire la constitution. waaw boo ko fàttee dinaa la ko fàttali. parce que sànq dama. gravement contraire à notre ko ba ko Abdou Diouf ba mu ko nangoo jox ko assemblée nationale Afrique de l'Ouest Afrique yëpp nangu ko ba Gabon nag di laayoo ji Abidjan ñoom ñëpp nag ba mu ko joxee suñu assemblée ba assemblée nangu ko dafa moom Abdou dafa interroger le président la République Abdou Diouf na ma baal ma naan moom Abdou monsieur le président de la République Abdou dafa interroger euh, le conseil constitutionnel ne ko wax ma est-ce que lii ma ñu def ànd nag suñu constitution gars tontu ko décision dama ko commenté publier ko man lu ma wax du ma du nëbbu lu ma wax rek nëbbuwul lu mu doon. Mm-hmm. àddina dañ koo jàng ba pare tëj seen bët tëj seen nopp bañ ma faale. Mm. daal ne conseil constitutionnel ne ko. atte nag ne lii dina ànd ak suñu constitution bu fekkee ne réciprocité am na. Mm-hmm. est-ce que oh. gis ngeen oh. commerçant oh. Abidjan bu ñuy atte Sénégal. Mm-hmm. moo nekk si arrêt bi. Mm. bu fekkee ne réciprocité am na mais réciprocité amul ba tey. donc ba pour man ce texte est ba tey jii contraire à notre ah, constitution et pourtant boobu drame moo ne si biir réew mi tey magistra sénégalais yi gën a kawe yi gën a kawe ëpp expérience mooy ñu nekk conseil constitutionnel ñu nekk cour suprême amu fi kenn ku mën a atte commerçant tey kenn du fi atte commerçant magistrat yi gën a ay Sénégal gën a compétent gën a expérimenté Abidjan lañ koy attee c'est nag dangay ngay fayal sa avocat da nga fayal avion fayal ma hôtel jox ma xaalis bu duun ba pare bu ma gañewul nag parce que man ma la jox garantie na may gañe laa yow. su ma gañewul nag yaay remboursé itam clé léppam. waaw waaw loolu ngeen di. même tribunal du commerce yi jële ko fi. no dama ne tribunal de commerce bu yéegee parce que dama ne sa procès Abidjan nga koy jeexalee. bu nga koy jeexalee. mooy bu ñu ba ñoom amuñu si amuñu ci kii. mooy cassation. cassation cassation si am droit dans tous les pays du monde. Mm. Amérique cour suprême la état bu nekk am na cour suprême. ak cour suprême fédérale. France am na cour de cassation. barka démb laay bindoon lëf man lu jëm cour cassation française mm-hmm. lu ma fa gañe woon benn yoon ñaar yoon ñu xaw a mbaleen fa nga après cour d'appel ma war fa delloo mais du doy sama curiosité euh, sànq yaa ngi wax ne loi il faut nga dégg tubaab bu baax lépp luy nekk ci biir léegi yow mbirum euh, euh, constitution constitution bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu xooloon wàllum troisième mandat bi yow nan nga ko jàngatee. lu ma bi ñu xooloon ma leen. comme constitution article 27 bi voilà. <laughs> nan nga ko jàngatee nan nga ko liiree. man wax naa wax naa wax naa lépp ba pare. oui mais man sama curiosité laa. dama si yokk article 28 yow ma si 27. waaw. dama boole 27 ak 28. Mhm. dem jëli code électoral ñetti laay boole sinon doo mën a tontu. waaw kon kon moon waxal. la ma tontu mooy. yow mii toog fii. Mm. déglu ma de. waaw ma ngi lay déglu. bu la neexee. Mhm. nga présenter candidature présidence de la république. Mhm. xam nga lan la ñu wax. Mm. benn da ngay am 35 ans. ñaar da ngay nekk sénégalais. ñett mosuñu rok sénégalais exclusif doo nekk leneen c'est leneen loolu kenn mënu ko vérifier ah. bon ah oui kuy vérifier man sama kayitu àddina yëpp ah man naam lapon la laponi yor na carte d'identité ñëw toog fii sa xamu leen ko ay mais nag dañuy bind rek mais neex nekk Séné kese <laughs> ba pare am 30. c'est de la provocation waaw <laughs> ah, kay nekk sénégalais kese am 35 ans mosuñu mosuñu la condamné. loolu la ñu aay loolu la ñu wax. ba pare nag passé woo quinze ans parce que sama copine gi jeex na. yow ba pare non dañ ne boo passé 75 ans boo ko toojee alors bu fekkee ne loolu am nga ko ne la nag na nga andi 50 000 signatures xaw ma 100 000 xaw ma 1 million de signatures alors c'est boo indee loolu yëpp teg xam nga foo koy teg si kanamu conseil constitutionnel nga koy teg. Mm. ñoom ñooy def benn atte sa bos mat na. Mm. def beneen atte ne bu dundooy mat même atte bi ñu ne sa bos mat na bosu Charles mat na bosu dundooy matul bosu Makumba matul mais yow bu doon yéexee nga ni ñaari signature teg ñaar kese au lieu de cinquante mille bu la neexee nga am vingt deux ans jóge ci kaso am sa ñaari signature mais je suis dama lay wax loolu mooy droit nag man juriste pur la loolu mooy droit xam nga nag la man juriste la li ma la xam naa ko sa nit du ko weddi nii ma wax li mu wax kenn du ko weddi ku xam ne droit doo ko weddi. Hmm. da nga naan dof bi nag bu la neexee mais dof bi bu ko neexee mu ñëw teg fa candidature am par force conséquence na ne ak ah, kii ab dof la candidature am baaxul. Hmm. rejeté naa ko dundoy bi genn wàllu dof la bosam baaxul rejeté naa ko euh, Charles bi bosam mat na nangu naa ko sa benn atte mooy wax loolu yëpp. Hmm. waaw benn atte mooy wax loolu yëpp si ñëpp nag. mais gisoo ñuy dàq ni seen signature matul comme Bougane Gueye ñooñu alors. bu fekkoon ne ku sa matul doo fa dugg kon moom du fa dugg mais dañ koy xool ba pare ne matul la tax ñu naan matul na ñoo ko xam mais foog ñu xool ko loolu mooy candidature léegi nag problème bi soo posé dama noonu ku mu neex nga teg sa candidature que président bi fi nekk mën na teg candidature. Hmm. loolu maa ko wax maa ko waxoon si condition yi ma waxee déggoo leen ma la expliqué ba pare. Hmm. dama la wax lu tax ba pare. Hmm. bu ko sañul bu ko defee dinañ ne dinañ àtte ko sañoo ko def. il n'y a absolument rien qui oppose une candidature au président. ah oui man na day dugal par force man ma dugal yow ma dugal xam nga man tey passé naa soixante quinze ans. maa la ko wax léegi. su ma neexee ma dugal candidature. waaw ah ku ma ko mën a aaye. dañ ma naan dañuy xool yëpp. ne ma sa xool ne la yow sa bos. Euh, dañu danañ ko recevoir. Mhm. ne ma sa candidature recevoir waxuma recevoir juridiquement. Mhm. recevoir matériellement. Mhm. matériellement irrecevable may wax. juridiquement mais nag dañ koy examiner. déposer naa candidature di fecc si mbedd mi di xaar ñu wax ñu ne ma eh yow sa candidature déposé nga ko mais nag gis nañ sa këyit ne soixante quatre vingt dix neuf ans virgule zéro nga am kon boog irrecevable. Hmm. yow mii nag sa bos mat na recevable Charles sa mat na recevable ñooy bokk àtte benn àtte bi ñu ñëpp. Hmm. léegi man su fekkee ni man. damaa def ki nga xam ne léegi nag moo teg candidature am sa nekkoon sa nekk président la république ñaari yoon sa nekk président de la république ñaari yoon ñoo teg candidature man Doudou Ndoye su ma nekkoon conseil constitutionnel dama ko naan irrecevable. yow Doudou Ndoye. man Doudou Ndoye laa wax. Mhm. waxuma keneen nag ku nekk sa opinion man opinion laay wax de. Mhm. opinion wu xam-xam laay wax. c'est boo xoolee code électoral ci boppam. Mhm. am na article boo xam ne dafa ne ñi nga xam ne seen candidature c'est pas recevable. or bu constitution boo defee ñaar waroo def ñett conseil constitutionnel dafa war a wax ne sa candidature c'est pas recevable. dafa wax ne c' est recevable. parce que def nga ñaar. du ne matériellement sañ loo ko fi andi. man opinion laay wax nii de. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm, néew ma li ma wax c'est la vérité waxuma loolu. sama xam-xam laay génne ni ma ko gisee. ku nekk sañ na bosam nag. mais ñiy wax naan lii premier quinquennat. ci continué yooyu bokkuma ci dem waxu caaxaan la du ah. france ah du français français lay lakk. dëgg dëgg waaw mandat conséquent. Ah, mais du moom doo ngay lakkal français de ñun ko expliqué ñu tamit ñu comprendre mais yooyu. Mm. mais moo tax na suñu mbokk téléspectateurs yi dañoo bëgg de comprendre fu caaxaan mm-hmm. ay ay naan de quinquennat euh, c'est le premier mandat mm-hmm. de non mm. constitution est d'application immédiate mm-hmm. c'est nag gis naa fu ñu bind ma reproduire bind boobu si li ma bind man c'est ba tey kenn tontuwul kenn weddiwul la bind dañ ne ay journaux ko bind de que l'actuel ministre de la justice professeur de droit constitutionnel nee na pour le président actuel mën a doon candidat il faut ñu modifier constitution bi ay journaux bind ko ma ne ay journaux bind nañ ko daal ko bind sama këyit tas ko si àddina bi kenn weddiwul li ma wax ba tey waaw kay jeex na débat bi jeex na le garde des sceaux xam ngeen luy garde des sceaux. Hmm. garde des sceaux mooy garantie signature chef d'état bu waxee waxam ma wax sama wax man wax boobu féete na boor léegi nag ku mu neex sañ nga def lu la neex si réew mii feex yaa ngi ñuy may jàmm. parce que àddina yàllaa ko yore sa dëgg suñu kanam. Hmm. olof laa làkk de. Hmm. Charles. mooy benn bi tey est-ce que bu ñu xoolee le le procureur de la république amul doole trop par rapport au juge d'instruction maanaam mu tënk ko si ay articles te amul juge de liberté est-ce que Sénégal tey par rapport à sa démocratie tolul foo xamante ne il faut un juge de liberté pour un procureur de la république pas aussi fort boo xam lu muy aussi fort qu'il ne l'est actuellement donte que patron am c'est justement koo xamante ne ci gouvernement la il faut plus de liberté il faut ça mais il faut plus on pourra me dire que nekkoon nga garde des sceaux defoo réponse bu yomb la ah man nañ ma ko tontu parce que les mêmes textes existaient quand j'étais là modifié naa si lu bari nag mais loolu dindiwuma ko mënuma koon dindi wala xalaatuma ko woon surtout parce que jamono jooju lu ma bëggoon dindi dina dañ xam naa li ma fi nekkoon ak la ma yore woon <laughs> li ma leer laa la wax la mu fi bëggoon def ak juuf nangul président bi nangul na ko la ma bëggoon dindi nangul na ma ko lu mu doon parce que man réew mi laa doon liggéeyal liggéeyalul sama bopp foo ma sa toog Sénégal laa fa toogal mosuma toogal sama njariñu bopp fen si àddina fu dul sama bureau bopp maa ko affirmé c'est que ma tegoon ministre xam na que moo amal affaire mais nag sama xam-xam ak xam-xam ña ma doon jàppale sama bindoo ko si sama téere bii nee naa dama fekk si ministère juróomi nit yu ma ëpp xam-xam mën ma fuuf ma nekk xale bu ndaw seen biir ñu nekk magistrat yu mag ma fekk leen fa. waaw kan lay sensé sa mu wóor ma ne ñi fi nekk ma mën. dama leen di sensé. loolu laa bind. dama leen dajale ne leen eh man maa dama koo bind te kenn du ko weddi maa ngi fii soog a ñëw xaw ma dara man politique laa def rek ñu fal ma fii ma nekk avocat di yuuxu ñu may fay xaalis. mais nag yore réew mosuma ko jàng. dama bëgg ngeen jàngal ma. c'est comme may seen patron tous les vendredis à midi bëgg naa leen fekk sama bureau yooyu ñëpp. ça trois ou quatre mois pendant tous les vendredis ñu may jàngal di ma jàngal di ma jàngal di ma jàngal ba ma mokkal ñu may gunge nag si lu mu doon lu mu bëgg ñu defal ma ko mais domaine boobu euh, sama xarit Max Depré bi yoroon des affaires criminelles il me l'a pas signalé à l'époque la ma signalé on l'a modifié kenn mënul taxaw def lépp su benn fan. Mm-hmm. kenn mënu ko man day defuma li ma mën laa def li ma mënul ba ko fa mais nag au fur et mesure may màgget delluwaat si nit ñi. sol sama robe di plaider di plaider waat ak expérience bi ma andiwaale. Mm-hmm. Ah, maa ngi gis lu ma xamul woon. Mm-hmm. dama boole lépp nag léegi gën a doon mag gën a xam dëkk bi moo tax maye la problème bi dépassé na loolu ce sont des articles du code de procédure pénale yu ma fa fekkoon mu ne fi ba tey moo bon gouvernement moo yore l'ordre public gouvernement moo yore suñu sécurité ñu ñu fi toog kon gouvernement war na surveiller lu nekk si réew si nekk ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw ñu wax ñaaw. ñaawteef ñaawteef. ñaawteef loolu mooy rôle gouvernement bu surveiller réew mi pour assurer suñu sécurité lu muy jëriñ. Hmm. bu gouvernement di assurer suñu sécurité ku menacer suñu sécurité wala ngay sàcc wa nga def lu bon dafa loolu la topp pour ñu tëj la pour ñu duma la mais moom mi lay accuser nag pour topp la warul duma en même temps juge lañu war a jox pouvoir boobu parce que loolu rol l'exécutif la. Hmm. moo yor boobu c'est tout ce qui dépend directement du président de la République or normalement les juges ne doivent pas dépendre directement du président de la République comme les députés parce que ce sont les trois pouvoirs ku nekk dana am fonction constitutionnelle donc léegi fonction constitutionnelle boobu juge yi war def dañ leen ko nangul parce que gouvernement moo fi teg ministre de la justice ministre de la justice fi teg daf koy jox ordre mu war ko exécuter j'ai donné des daf moo jaadu mais procureur bi exécuter sa ordre mais kon yow la bu nee tëjal bu nee bu nee tëj leen la sa ordre la mais c'est nag dafa am non dafa am ay texte yu nekk ci code de procédure pénale ak code pénal yoo xam ne dañu bind ne bu procureur ne juge bi tëjël day tëj par force bu procureur ne juge bi tëjal si yenn délits yi day tëj par force mu nekk mu naqariw est-ce que loolu est-ce jaadu na ah. ça veut dire que bu ne juge bi tëjal mu tëj par force waaw loolu laa ne dafa am ay textes yu bari ci code pénal ak code de procédure pénale yuy jur loolu ce pouvoir que le procureur a Absolue. de donner même des ordres à judiciaires à un juge oui. qui doit statuer sur nos libertés mm. procureur adversaire la procureur bu tëjee nit tëj lu nit ñu tëj ko nit ko dañ koy àtte bu ñu koy àtte procureur day taxaw ma taxaw wala beneen avocat taxaw ñu jarox moom. mu laaj lii ñun ñu laaj lii ñun ñu laaj lii bu ñu laaj lële juge bi àtte mais fekkee ne moom moo naan par force la. kon kay xëccoo bi amatul njëriñ. mooy li américain yi def ak procureur spécial bi ñu dénk le dossier de Donald Trump. ministre de la justice euh, tabb ko. non loolu ute na parce que man ñu ma ñu ma dugg si droit américain parce que xaw ma ko. Mm. dëgg dëgg xaw ma ko franchement. Mm-hmm. man daal. loo xam ne système juridique français la ak Sénégal yemale ma ci dugguma si droit wu suisse dugguma si bu russe dugguma si américain jànguma ko dugguma si bu anglais jànguma ko bu Sénégal de manière globale dañ ni c'est pas de la liberté de la presse mais c'est les libertés publiques parce que am na ñoo xam ne dañ leen a jàpp parce que dañoo xotti worma si ban dëkk Sénégal gi waaw dañoo xotti worma ay nit ay wax yu tegginuwul eh, temps yi tàmbali nañ cee jàpp ba mu xaw a takku ñooñu des leen war a jàpp teg leen ci yoon parce que li def jekkul jaaduwut wala am nañ liberté parce que dañuy politique ñoom tam ñu fen parce que nee nga ci politique mën nañ ko ceebaale dafa am ñaari domaine Charles dafa wax sànq affaire journaliste bi jàpp Pape Alé Niang noonu mhm. ma nekk si la presse ñi nga xam ne c'est pas le domaine de la presse man la bokkuma ci mhm. c'est les libertés publiques liberté publique mooy kuy noyyi si réew dañ la war a protéger dañ war a protéger sa dem sa ñëw sa nelaw sa lu mu doon bu ñu la koy xañ dafa war a wéeru si loo xam ne dafa loi bee ko aaye ba pare ñu gis ko mu am bu dee sax dañuy def nii rek war ñu la ko xañ parce que lii dut la si dut bi dafa war a bénéficier ki ki ki ñuy topp la war a bénéficier donc dañuy gis nga def ko loi bi aaye ko parce que sa principe bi mooy danga nga pour dem ñëw nelaw liggéey joxe lekk naan libre la mooy principe mooy les libertés publiques loolu yëpp mooy liberté publique ku nu jàpp ku mu mënti doon ça pose un problème de liberté publique ku mu mënti doon même boo reyee nit façon bañ lay jàppee ça pose un problème de liberté publique donc léegi nag selon le cas selon le cas ngay étudier cas bi ba xam nax on porte atteinte aux libertés ou pas cas boo xam ne xaw ma ko nag ba jàng ko bu dugg ci. man du ma ci wax mm-hmm. dëgg dëgg. on va avancer messieurs euh, donc euh, ñi ngi woon ci liberté de la presse. léegi nag li ma doon ñaan mooy ma ngeen bañ ma dugal ci droit. ba ngeen may invité droit rek laa doon ñaan ngeen bañ ma si dugal damaa wax wax wax droit ba droit man sama bopp su <laughs> ma dëmoon ba may nekk xale ah ay droit bi génn ma si ngir yàlla andil ma si li neex nit ñi nit ñi dañu bëgg di ndékki di añ di reer di xëy suba seen doom di liggéey ah. seeni i luyaas ñu mën koo fay waaw seen kër ñu mën koo moom tabax ko mais loolu sénégalais yi bëgg mais nañ ci dugg nañ dugg ci bàyyi leen droit bi waay avocat yi du fi jeex ak magistrat yi. mais yow mais nag xam nga nag xam nga lan moo tax ñuy wax si wàllu droit. xam nga éloquence bi nga am booy expliquer dañu il faut sénégalais di la déglu yow mënoo ñàkk ci ci ci waxum droit. droit nag laa bëgg ñu bàyyi ma ñu ñu ñu génn ci ñu génn ci waaw ñu génn ci addina bi addina bi. li ci toppoon sax fi mu ne nii li ci toppoon ci ni ni ñu waaje woon. dugg si addina bi location bi xam na droit addina bi. non non location bi loyer bi. ci adduna bi la bokk loolu xam nga loolu seeraay bi moom lu ëpp ci sénégalais yi bon pas lu ëpp ci sénégalais yi mais ñi dëkk Dakar li ci ëpp lu leen euh, indil ay jafe-jafe la ba président gis nga concertation nationale yi mu ci mujjoon a woote. yow est-ce que jàpp nga ni. <laughs> solution bi ñu wax ni moom lañu tëral ñoom fi mu ne nii wàññi nañ lu ko dalee deux cent mille jëm euh, ba ba trois cent mille jàpp nga ni loolu solution la est-ce que dina régler problème bi. dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. <laughs> dëgg lii nu fi def yëpp réglé wul dara c'est du réglé dara. réglé wul dara c'est du réglé dara ba pare àndul ak la ma concevoir ne mooy yoon. yaa ngi wax waxu yoon encore di wax droit. non li ma concevoir ni mooy yoon. Ah, mooy yoon ok. waaw au sens large dañ mhm. ci agsi mhm. parce que yoonu yàlla am na. Mhm. yoonu société bi am na. yoon bi ñu wotee assemblée am na. yëpp yoon la tudd. wante nag boo jëlee affaire loyer yi nga ma wax nga bëgg ñu débattre ko dinaa leneen. naa la wax benn. naka nga mën a jóge rek daal di ne loyer bii du passé trois cent mille loyer ban loyer kër gan loyer néeg ban loyer quartier ban loyer dëkk ban Sénégal day Dakar mhm. yaa ngi wax léegi naan dakaar et cetera ñëpp dañuy wax rek comme bu fekkoon ne Dakar mhm. place de l'indépendance mooy Sénégal waaye ngir yàlla Tambacounda bokkul Sénégal Maka Koulibantang ah, kay Kédougou wakku ngudum jandeer hmm? Louga Jurbel néegi ñax yaa nga fa du jeex ak baraag yi ngeen hmm. nekk fi naan loyer yi bari naax loyer yi nii na xamuñu dara xamuñu lu ñuy wax tey dafa nga ne dinga nga ne loyer ñetti néeg deux cent mille la ma ne barke démb sama benn xarit mais sama mindaan bii sama biir kër néeg laa ko jox. Mhm. dafa nga ne néegam ak sama bos ñoo tolloo. Mhm. ak ñoo nuroo kon looyaay ñetti néegam deux cent mille la man sama ñetti néeg tam deux cent mille la. Mhm. ma ne waa ji mais palais de la ay néega fa nekk. waaye daf nga ne néeg ba waa ji di fanaan sama doon ñaan yàlla fanaan fa. ak lu néegu sama mindaan bi sama biir kër ñoo tolloo. si lépp néeg la tudd. bu bu si nekk néeg la tudd di. Ah, néeg bu ñu defaree ak marbre. néeg bu ñu teg ay bois de teg. néeg bu ñu teg peinture boo xam ne benn pot bi deux cent mille lay jar ak néeg bi nga xam ne peinture pàkk ba lañ ko defee ak karo kase yi jël si mbuus yi doo ko def moom laa commencé woon man lu ma wax dama ko xam mm-hmm. man du ma waxantu lu ma wax dama si xam ma ko xam ne ci dund ko ne ci ba tey mm-hmm. man li may wax dama si ne ba tey la ma juddoo laa nekk ba tey jii man fa ma juddoo na ma màggee la ma doon def laay def ba tey jii ba tey ba démb ba tey suba moo mm. dama ko xam alors kër loolu yëpp nga naan danga koy évaluer demal demal demal ñooro nga seeti kër yi alors sa tarif yi ngay def ñooro la walla Dakar la wala Guédiawaye la wala Pikine la wala fan la kooku premier problème ngoo mais deuxième problème yow soxna si sa yaay ju baax ji fat benn fat benn waaye foofu luye ko nekk waa ji fay cent mille francs par mois waa ji nekk waa ju baax mu dem ba doomoo ko bu toogee ndékki ne ko kaa ñu ndékki mu toog kaa ñu añ mu añ mhm. kaa ñu reer mu reer kooku day xëy suba ne ko Macky Sall nee na nga cinquante mille laa lay fay tey mhm. day woddu ne ko di nga génn sama kër tey mhm. kenn mënul fex ba génn këram alkaati du ko mën sàndarma du ko mën parce que jigéenu Sénégal yëpp la ñuy dundee ñëpp la seen jëkkër dee ñépp nga seen biir yu baraak seen biir yu néeg seen biiru kër yu màgget luyee ñetti néeg di ko dundal seen njaboot nga xëy suba ne ko wàññiwu ñu nekk Europe def lu ne foofu ba am lu ñu jënd kër yónnee ko fii dugal si seen yaay wala dugal si nit ne ko luyaas bi de ko dundal sama yaay. Mm. nga xëy suba ne ko luyaas boobu wàññi ko la xam nga li ngay wax. ak am euh, kii banque. ña demoon foofu di wax yëpp lañuy wax xamuñu ko. Mm-hmm. dara lañ ci xamul dañuy ngan la ngan la lu président de la république soxla na leen ñoo taxaw. ku nekk théorie ba doyle lañu def dara du si marché dara du si baax du baax si aada du baax si dundu Sénégal kenn du ko mën a nangu même locataire bi si boppam ñu si ëpp duñ ko nangu parce que la siy fekk mooy génn kër ga dafa nga ne borom kër bëgg la génn këram di nga fa des am na kër yoo xam ne courant bi borom kër yoo koy fay mhm. compteur bi moo ko yore day xëy suba fayul dara seen lekk dagg lépp sa kenn du ko def compteur loo ci mën président mooy ñëw di def compteur foofu mais il faut être sérieux président de la république du caaxaan kilifa la kilifa bu lay wax ne defal ma da ngay seet lu mandu la nga xam ne du si dugg ba pare di ko réccu kilifa doo ko dugal si li muy réccu mais est-ce que déglu nañ commission bi tamit ça la grande question aussi parce que commission bi ce que ñoom euh, recommandation ñu joxe woon. Euh, euh, commission wu ñetti weer wala ñaari weer wala benn weer mënul defar dara si réew. maa wax loolu mu jeex. Mhm. commission bu mu mënti doon. mënoo ko def si trois semaine mu jox la Sénégal mu jox la benn exemple si loyer yi nañ dem si foncier bi waaw non si foncier bi laa jëm Charles baal ma de dama dafa la bëggoon relance waaw ma duggee si foncier bi jox la exemple augmentation des loyers voilà si foofu est-ce que jumte bi du foofu mhm. est-ce que toujours encore Charles Aba ah, ah, est-ce que du si foncier lañ juum ba nga xamante ne et kooku c'est depuis 2000 quasiment la ñëw. xam xam nga juum ku juum ñu jéggal la c'est une mauvaise politique c'est volontaire defuñu ko volontairement pour yokk bi mais la politique est mm-hmm. defuñu ko volontairement pour yokk loyer bi mais ce qu'ils ont fait c'est volontaire c'est un jeu d'intérêt c'est ba ma laajee ma wax la lan la. Mm-hmm. wax la lan la. parce que gisuma intéret économique bi. Mm-hmm. maa ko gis. moom laa la bëgg a wax. remplir les de l'État. ëpp na loolu bàyyi mox la rek. décision politique. ma wax la dara. Ah. sànq tudd nga fii domaine national yow. waaw lu tudd nga mm-hmm. domaine national c'est presque tey bu ma juumul quatre-vingts pour cent des terres du Sénégal alors domaine national suuf la suuf la soo xam ne loi bi dafa wax ne loi 1964 suuf si ne Sénégal yëpp nangu nañ ko. sauf ku am titre foncier ku am titre foncier boo téyee nangoo ñu suuf mais ku mu doon réew mee ko moom léegi moomatoo dara réew mee ko moom c'est gouvernement bi dina taxawal ay kuréel mooy conseil rural mooy maire yu tey mooy conseil rural bi mooy maire yi tey la doon maire yi dina taxawal ay kuréel yoo xam ne ñooy seet ku mën a def lu baax si suuf si ñu jox la ko ku mën a def lu baax lu am njariñ ñu jox la ko nga def ko si loolu mooy loi sur le nationale jeex na léegi nag ba ñu taxawalee conseil ruraux yëpp taxawal mairie yëpp maire bu nekk yore territoire am mais dangay gis lu ëpp si suuf loo xam ne da kenn dara newu fa kenn tegu fa baraag kenn tewu fa teen kenn defu fa garab kenn defu fa dara nga gis mairie bi jox la ko yow naan ne délibération jox naa la ko mm-hmm. délibération jox naa ma kumba béy délibération jox naa Charles Charles jël kayit boobu publier xool leen seen internet dugg leen si site mhm. ne leen dakaar Immo wala Dakar terrain mhm. site vente suuf dugg leen ci ngeen xool mhm. di ngeen gis balaa ngeen fay jógee publicité du jeex damay jaay suuf département de tel domaine national la délibération la vingt millions lay jar waaw suuf soo xam ne d'abord loi si boppam moo ne ku ko jaay ma tëj la loi bi nee na ko jaay ma tëj la c'est écrit dans le code pénal ku jaay suufu domaine national ma tëj nga publier au monde entier ñëw leen ma jaay leen suufu domaine national <laughs> délibération la vingt millions laa la koy jaayee y en a des milliers de cas comme ça dans tout le Sénégal moo fi na c'est la règle maintenant c'est devenu faire attention aux délibérations c'est devenu la mm-hmm. jëlal boo xamal faire attention mm-hmm. mais c'est illégal économie laa lay expliquer fi nag maa ngi si économie bi génn naa si droit bi sax parce que mm-hmm. droit day expliquer rek mais maa ngi si économie bi maa ngi si loyer yi fa laa jëm léegi nga jël ces milliers de terres du domaine national nga xam ne man bu ñu ma ko joxoon gratuitement parce que loolu loi bi wax dama koy mettre en valeur. ma war si def immeuble ñetti étage ay appartement yu bari gratuitement waaye léegi ma jëm jënd ko quatre-vingts millions. Mm-hmm. ma jënd ko quatre-vingts millions. waaw léegi war a jam autorisation de construire mairie bi day jox autorisation de construire léegi. d'après les lois dafay jël pourcentage sur le projet. nga yokk ko si quatre-vingts yi. ak yeneen ak yeneen yang ciy boole. matériel matériaux de construction yi cher ñëw yokku waaw loolu yëpp nga tabaxee ko immeuble bi doo ko amortir. amortissement immeuble loyer yi la. Mhm. ah bu fekkoon ne quatre-vingts millions ñooy dugg ci yeneen yu sew yi dugg ci kon loyer bi du wàññeeku si saase. Mhm. te loolu yëpp illégalité la. moo ko indi délit bu ñëpp di gis nag bu kenn weddiwul. Mhm. parce que délit la boo xoolee internet lépp moo ci nekk ba Sénégal jeex ma wax leneen léegi. ma ñëw si bi gën a garaawati. xam nga ki domaine national ñu ni léegi loolu domaine de l' état. xam ne état ko moom si boppa mu nekk titre foncier. ñaari fan ñett nga gis encore si même internet maa ngi jaay suuf bàyyi la maa ngi jaay suuf bàyyi mais bàyyi mooy lan état bi moom moom titre foncier am loué ko ma kumba béy bàyyi lo luyaas la. luyaas dong la longue durée. ñu def ko titre foncier bi. alors ma loué la ko longue durée man état bi. nga may fay exemple quatre cent mille francs année bu nekk exemple laa joxe ah terrain bu nekk la joxe damay jox quatre cent mille at mu nekk man état bi ma jox la baay bi parce que boo koy jël da nga naan dama bëgg tabax kër. dama bëgg a tabax immeuble. ba ma la ko joxee ba pare nga xëy suba rek publicité damay jaay mille mètres carrés bàyyi. may la ñaata nga ne deux cent vingt millions. am na ñu koy jëndee du jeex te nag buñ la koy jaay. dangay dem si domaine ñu autoriser ko waaw naka la domaine di ñëw di autoriser suuf soo xam ne kenn defu si dara xam ne quatre cent mille par an lay am mu autoriser la ko pour nga jaay ko deux cent vingt millions def sa poste dem mhm. autoriser la ko pour nga jaay ko cent millions quatre vingt millions cinquante millions ça dépend noo koy jaay def sa poste dem lu état bi kon defoo si dara la tax mu jox la ko defoo ko ci kon du nangu mu defal ko boppam combien de milliers de cas moo ne Sénégal alors boo loolu yëpp buñ ko boolee mu waroon nekk ay zone yoo xam ne dañ ko war a tabax tabax bu yomba lu yaa si mën a yomb. mais fekkee une grosse production en fait bu ko ñëpp di jënd jënd bu seer. Mhm. illégalement. naka la ñuy defee ba ki ko def du amoon amortir loyer nga boole si leneen tey ñu bari ñu amoon kër si Sénégal dans les années soixante ba quatre vingt HLM ak Sicap a tax. Mhm. du dëgg. dëgg la le gouvernement mon frère mon ami mon président a de très bonnes idées. mais que la réalité rejette on gouverne avec le réel on gouverne pas avec les rêves mm. il a eu de très bonnes idées mais la réalité nee na ko déet nee na ko déet ñëw na ne dafa bëgg a def programme yi cent mille logements anu cent yi mais programme mu cent mille logements boobu ñu tudd ay zone comme dagg xolpa ak feneen ak feneen la ñu programmé ne moom la ñuy jox ay entreprises privées. c'est 27 pôles. ay promoteurs privés. Mm. pour ñu ñëw ñu jox leen suuf si jox leen ay arrangements fiscaux ay exonération pour ñu tabax ay logements sociaux mais est-ce que vous pensez que promoteur privé bu dul œuvre de bienfaisance laa wax koo xam ne dafa liggéey xaalisam yor usine am di ñàkk guddeeg bëccëg di wut bénéfice kooku dina ñëw jël 3 milliards am def ko si 4 hectares logements sociaux di ko jaay prix wu. 25 25 millions. 12 millions. moom nga yaakaar. Mm-hmm. promoteur privé bu def loolu baadoolo la promoteur privé bu def loolu. il travaille pour du bénéfice. kooku liggéeyu état la. pourquoi état jëlul suuf yooyu yëpp ne HLM ak Sicap jox naa la ko doo fay dara. mais léegi nag man état si bor yi may jël si turu Sénégal. maa lay subventionné si bor yooyu. nga tabax ma cent mille logements parce que Sicap noonu la defoon de Senghor loolu la defoon. këru Sicap yi. Mhm. man jënd naa këru Sicap six millions. Mhm. te tey kër googu cent quarante millions lay jar. à l'époque dama ko jaayaat. Mhm. taayu jëkk ya si kaa bax HLM loolu lañ loolu la leen Senghor defaloon donc gouvernement bi loolu la def tey c'est très simple. loolu yëpp même pas beaucoup de foncier hein, si de sorte que tey si le logement n'est pas suffisant. logement yi bu suffisant wul mais il faut mu seer sëñ bi. c'est la loi du marché. c'est la loi du marché ji ndax jaay la. dama lay loué da ngay loué jënd ak jaay la de c'est la loi du marché loi mënu ko sensé. est-ce que amul comme comme dañu dee économie est-ce que amul benn quand même ay paradoxe parce que loi du marché day fekk mu am benn accroissement d'abord benn quand même du nombre de travailleurs te Sénégal moins de six cent mille personnes ñooy fayeeku maanaam ñooy fayeeku ba pare di am retenue à la source donc on a moins de six cent mille contribuables donc bu ñuy ne marché déjà. déjà ñooñu la ñuy commencé si ñooñu mooy la classe intermédiaire si seen biir nga leen di fekk. donc est-ce que tey amul ay contradiction yu métti parce que salaire bi croître amul croissance bu doy waa bu topp rythme ba nga xamante ne inflation ñun sax amuñu inflation du loyer à Dakar lu ñu waxante dëgg mooy à Dakar parce que c'est c'est des surinflation sur le loyer boo bu ñu xoolee au fond parce que salaire yi amuñu croissance googu euh, lu mu tudd assiette assiette des tra du travail augmenté wul employé augmenté wul on parle beaucoup d'emploi mais augmenté wul donc de contradictions dans ça. mais man je suis d'accord avec vous sur le fait que dama d'accord ak yow sur le fait que loyer yi cher na wante la koy faj la koy faj mooy wax ji feebar yow mën naa gis mais faj ko mooy wax ji. feebar ñëpp ko gisandoo feebar bi mu ngi fi ñëpp ko gis mais man la koy faj laa wax. c'est mm-hmm. la def du ko faj. j'ai dit ça waxoon naa leen ne commission foncière ku ko fi mënti yor doo fi def dara maa waxoon loolu. mooy parce que réforme bi yaa ko commencé woon. maa fi andi lépp. mais mais commencé wu ma bàyyi ko fi. ah mais maître ce que mën na dem di jaay suuf 150 mètres carrés a Wakam ou quelque euh, ailleurs à Dakar assainis assainissement amul aménagement amul amul fi dara ñu la koy jaay 50 millions de francs. wax wax naa la li xew ba pare. Mhm. <laughs> loolu kay wax naa la solution bi faj waaye yi laa nekk ba tey man. Mm. ba tey. bi faj feebar bi. bi faj feebar bi. Mm-hmm. waaw mais position bi faj feebar politique lay doon politique économique politique économique du oo commission ñetti fan déedéet il n'est pas question. pour commission wu trois semaines rek la mënul mënul définir une politique pour nation. Mm. mënul nekk. je parle d'une politique nationale pour notre nation. dakaar ba fongole mi ñi fi toog yëpp Dakar la dëkk sa Dakar la ñuy wax. Mm-hmm. néegu ñax yi nekk Nioro waxuñu ko. baraag ya fa ne tudduñu ko. say locataire a fa nekk. Mhm. alors je parle d'une politique nationale. je parle pas de Doudou Ndoye petit bourgeois kii laa ñëw wax dem yoonam. Mhm. waxuma loolu. lay faj réewu Sénégal laa wax si laa ne. dama ne tey dañuy war a définir politique économique buy indi logement yu doy. Mhm. moom laa tuddee la loi du marché. c'est nag logement yu doy fex amul si réew. loyer day seer. parce que tam ki moom këram lebi sàcc. def lu nekk tabax ah war a fay bor fu nekk nga ñëw toog sa palais ne ko trois cent francs lañ lay fay du nangu se du am mm. benn dëkk si àddina bi mos ko def nañ wax benn dëkk bu ko def parce que ñun dëkk bu ndaw la ñu ngi soog a door mm. nañ wax benn dëkk bu mos a def loolu te dinaa benn dëkk bu mos a def dara benn dëkk si àddina bi mos a def lii nañ ma ko wax ñii jaay xam-xam fii nañ ma ko wax amul benn dëkk si àddina bi mos a def lii bu ma sa def lii nga xam ne moom laa dénoncé sama livre boobu ba ne du réussir parce que dañ ko def en 2014. dañu woteel 2014 oui. ma bind si téere. Mhm. ñaari décret ma bind si téere démontrer en droit que li def yëpp baaxul sa du am c'est monsieur le président de la république il y trois mois nee na affaire loyer mënu si dara wax na ko. moom Macky Sall. le président de la république tudd ba sax tur man dama ko fonk du ma wax moom Macky Sall. ah rus naa loolu. monsieur le président la république nee na loyer yi mënu si dara il y mois ou trois mois wax na ko fii waaw ba pare ñëw nag andi commission ñett yi joo xam ne ñoo gën a nul si àddina bi naka na ngay def nii da ngay def léegi da def dañu nul parce que li ñu wax xamuñu ko maa def débat juridique sur ñu mën a ñëw débat juridique sur la question des loyers juridique laa wax. waaw mais loolu laa lay expliqué. ne la est ce président topp na commission bi ñu leen jox comme comme euh, comme. Makumba nit moon ko régler boo ko réglé wul en droit pur c'est boo ko réglé en droit pur te mënoo ko réglé bu fekkee la nation n'a pas les richesses qui permettent aux locataires de travailler et de payer bu fekkee la nation n'a pas construit autant de maisons qui coûtent moins cher il faut une politique économique une politique de la construction le président de la République jéem na ko mais je vous dis programme 100 000 logements bi baax na mais daf koy confier des privés ces privés bénéfice la ñuy prix yëpp yokku na inflation mënatuñ ko état bi la koy confier à travers les HLM et les SICAP subventionné leen ñu andi fi cent mille logements dootu ñu fi doxati problème de loyer ñu bàyyi ces politiques de bail emphytéotique ñuy jaay quatre-vingts millions nga xam ne boo ko jëlee jox la ko normalement nañ la koy joxe foo war a defar dugal trois cent millions deux cent vingt millions nga fay dugal mm-hmm. donc booy amortir te te construction sur douze ans donc amortir léegi sur huit ans mm-hmm. wala donc amortissement bi day changé mais c'est c'est ces histoires de bàyyi de de domaine national délibération ñuy jaay ay prix yu kenn xamul mais dans ce cas bu lépp yombee jënd bi yomb jënd suuf bi yomb jënd suuf bi bu yombee am suuf bi bu gaawee sa yomb SICAP di tabax HLM di tabax mais dans dix ans Sénégal problème de loyer du fi posé. maanaam lu lamb daal. c'est doo violer dara. Mm-hmm. les efforts là seront faits par un peuple. peuple day def effort ba àgg. Mm-hmm. agsi nañu si coono. dañ koy faj par une politique économique sérieuse mais pas par des. des pays des... comme le Maroc ont réussi ça. quand même une grande production euh, de logement mmh. oui ils ont ils ont Man, vraiment. réussi ça fu mu faral juróom ne loyer seer na wàññi naa ko xam nañ lan mooy wàññi loyer. Mm-hmm. exemple exemple wàññi na loyer d' accord wàññi tabaxal kër gu bees tax tey kenn dugg fa. Mm-hmm. ki tabax kër gu bees tax sa kenn dugg fa. Mm-hmm. ku koy wàññi loyer duggulul kenn mu ngi wax kër. mi ngi xaar. ba loyer ngay wàññi xanaa baa ngay wàññi lëf mu ne fi. kon loyer bu bees bu muy def bokkul si lu ñuy wàññi. daf si mën a bokk. lu ñuy wàññi mooy yow mii di fay tey nga ne fi tey di fay cent franc. ñu ne sa cent bi cinquante franc la. loolu mooy wàññi mais bu fi nekk dara newul bés boo ñëwee lu ñu la wàññil. bu ñu lay par manque de maîtrise totale sur la question foncière. mais la question c'est de c'est di se dire de ne pas céder. je regrette le président de la République a cédé à ñetti wax ñeenti wax juróomi wax. muy xalaatam yi ngeen ma laajoon sànq. waaw nga xam ne bon xam nga ni bu ko wax. réforme bi. déet mooy deux millions rek luy ñëw. Ah. am nga il a cédé à toutes ces choses là. mais cette question là c'est pas une question sur laquelle on cède. c'est une question nationale. c'est une question économique nationale. nit ki nit ki kër ga muy dëkk ñaata la jar. sol sol dom bi nga wax nu mu tollu. la question des salaires se pose au Sénégal. mais mais mais maître Doudou Ndoye yow da nga xarañ ci droit privé te mbirum suuf yaakaar naa da nga ne sànq droit privé la wala. moom kese la. waaw léegi léegi yow liggéey nga si réforme bi. Euh, liggéeyuwu si maa ko fi andi. waaw yaa ko fi andi non non man dama bëgg les termes soient précis. waaw waaw d'accord donc ma rabale naa boobu ma tiitaroo ma nag. yàlla xam na loolu man ñi ma xam xam nañ loolu. mais man nag la. waaw léegi man domaine du ma si caaxaan ak kenn. waaw léegi war naa boobu. laalu maa ko fi teg. waaw léegi ba pare ko fa nag. waaw léegi war naat na waaw léegi. Ah, waaw pourquoi maa waaw pourquoi boo bëggee ma wax si tuuti. Hmm. maa fa teg lépp. waaw léegi yaa ko fi teg. ba lépp mënoon togg nag la ñu bëgg si réew mi léegi nag xanaa nag doo gëmm nag yow tamit li nga xamante ni yaa ko togg ba muy bax bu muy xeeñ neex tamit nga dem nga yeggali ko nag. dafa euh, am borom. ku ko moom. Macky Sall président de la République. waaw ah. déedéet eh dafa am borom. monsieur le président de la République moo ma santé pour ma xalaatal ko luy régler problème mu suufu Sénégal waxam foofu la yem ak man yokku si beneen moo amul beneen moo bu mu si yokk ma ne ko maa la koy xalaatal parce que gëm naa loolu sama àddina moom la maa ko xalaat. ànd samay nit ñu ma neex yi ma tànn man di ko liggéey sama kër sama bureau ay weer déggatuma ba ma xëy suba ne ñëw naa lii laa la xalaatal bind naa ko nag jeex na mu ne ma d'accord man ne ko décret bi créé commission bi maa ko bind mu ngi nii jox ko mu signé ko la may nommé président maa ko bind mu ngi nii mu signé li ma wax leer na nañ. nañ xam nga wóolu mënul passé loolu nag. Mm-hmm. daf maa wóolu dëgg dëgg. daf ma wóolu woon wóolu dëgg moo ma signé lépp. maa wër Sénégal ba mu jeex jëli ñi nga xam ne ñëpp yaakaar naa ne am nañu xam-xam bu ëpp sama bos parce que ku nekk sa domaine. Mm. parce que domaine ñëpp dama ko xam nag bu su nekk xam naa ki ma si ëpp xam-xam. Mm. waaw waaw la ma wax sama téere ña ma fekk ministère ne leen jàngal ma loolu laa def ko ñëpp tam ku su nekk quatre-vingt-dix personnes maa leen jëli kenn ku su nekk l' actuel premier ministre Amadou Ba maa ko jëli teg ko sama ginnaaw. moo doon directeur général des impôts et domaines. Mhm. c'est man ba may doon inspecteur des impôts doonu ko. ma ngay jàng. ba ma koy doon doonu ko. Mhm. kon nga xam naa la mu xam. si mhm. domaine boobu. xam naa ne tam si moo ko yore moo ko yore foofu comme directeur général de impôts et domaines ma ànd ma ne ko da ngay bokk yàq say nit wër ma ñu àndandoo lu may def ngeen fekke ñoo koy bokk def maa créer loolu yëpp jëli nit ñi dawal samay oto dugg si bureau yi ku nekk maa la seeti jëli la. convaincre ñëpp ñu bañoon président Macky Sall sax dañ ñëw ànd ak man ne ma lii jar na ko alors ñuy def réunion guddi ak bëccëg di def suñuy affaire li ma si mën a wax lay wax nag am na yoo xam ne. non non non waaw waaw doo ko dégg sama làmmiñ bu soobee yàlla. ñuy def di def di def ba budget bi ñëw ma toog sama bureau. oo benn contrôleur d'état bu nekk présidence mu ñëw jàppale ma techniquement parce que métier am la mosuma mën a defar budget bu jëm assemblée mais comme que samay idée la maa ko oo mu ñëw defal ma ko may wax muy wax. ba ñu defar budget bi ma yónnee ko président la république mu woteelu ko assemblée nationale muy budget bu mu yoree pour suñu commission waaw budget bi du ko teg suñu tak suñu kanam ñu liggéey ok juróom benn weer ma topp si ñoom di dugg avion di dem di ñëw di def lu nekk ci sa xaalis ak sama poosu bopp mm-hmm. moom xam na ko man xam naa ko xam na fiñ si jaar si loolu moo tax du ma si sori mm-hmm. mais lépp mën na mais bu doon loolu rek waat naa si alxuraan du ma démissionné da ngaa gedd parce que ñamu du ma démissionné France laa wax. parce que ah, man du ma gedd. déedéet xam nga kuy gedd. dañ naan ku gedd sa yaay aye. man du ma xale mag laa. mag du gedd. man mag bu am jom laa bëgg sama réew. lu ma amalul njariñ amalul njariñ kenn du ma fa toog. man xale du ma toroxal si àddina. sama morom mosuma jéem a toroxal ba am ko waxtuma koo xam ne du ma sa morom. ku mu doon du ma nekk place dafa tuuti. Mhm. du ma fa màgg nag mais sama cër ak sa cër. ak cëru kii ku nekk ak sa cër la man kenn du ma toroxal du ma yeb kenn kenn du ma yeb mhm. li ma wax du olof la dëgg alors ba ma liggéeyee ba loolu yëpp ñëw budget bi kenn tegu ko mais maa ne waat naa si alxuraan loolu taxul ma dem mhm. la tax ma dem ña ko bokk man xam nañ ko foofu laa mën a am wax ñu tuuti la ko wax mais du xaalis mhm. billaahi wallaahi taala ña ma wër am na si kilifa yu mag yu ma doon wax bés bu nekk démissionnaire sonn nañu ñu ngi ñëw guddeeg bëccëg di def lu nekk budget bi ñëwul ma ne leen déedéet budget day yéex nañu bokk li ma am man dama gëm président sama xarit la sama rakk la maa koy jàppale te mënoon naa ko ne ay at laa wax lu ma am di ko si def waat naa si alxuraan man alal yóbbu ma si kenn te du ma tàggaleex kenn mais nag damay tàggaleex nit mooy ma jox la sa cër nga benn maa delloo suma gos mm-hmm. nit du am loolu si man mm-hmm. ba ma gisee loolu gis ko fii gis ko fii gis ko fële laa leen ne téye leen seen yëf si ba man kenn du ma doxloo di ma dawloo pour dara di ma yëpp hmm. dem sama yoon li sa biir yëpp nag ñun ñu ko bokk yéen ko seek daal xam nañ ko hmm. waaw léegi nag ba nu fa jógee monsieur le président de la république jël loolu ma def dégg ko monsieur le professeur Sourang professeur de droit constitutionnel la bu xam métier bu mën a jàngale mais bañ ko ko joxee laa ne du ko def parce xam naa ne mënu ko coono ba ma daj ba andi quatre-vingt-dix personnes yoo xam ne man naam kenn ku si nekk da expérience bu ma amul man boole si la ma xam si xamu ko parce que la mu xam xam naa ko droit constitutionnel jàng naa ko bu baax si maa ngi si bind téere bind naa si ay livre c'est moom bindul livre de droit privé c'est professeur de droit la benn livre droit privé bindu ko moom bind naa livre de droit constitutionnel alors nag droit foncier nag diggante sa suuf ak mu bëgg a nangu un mètre sa bos c' est du droit privé. waaw c' est le droit de servitude. Mhm, kuy jàngale constitution xamoo ko. te mhm. yooyu dañ koy réglé moo xam dara tey. wax ma noor foire gi nga gis suñu ginnaaw fii. Mhm. ku fa dëkk ña fa dëkk ñëpp amu fa kenn ko am kayit bu baax. boo ko jaay ak kay écolier. suñu suufu maam la woon rek. parce que domaine national dafa ñëw nangu suuf yi. moo tax amul assainissement. dafa ñëw nangu suuf yi nga gedd naa sama suufu maam la tooñ nangu ko xëy suba nag di jaay rek ñuy di tëj kaso si loolu nag. mais kay kay école yi la ñuy jaayee. Mhm. nga ñëw tabax immeuble bu rëy. say doom mën ñoo doon lu ñu moom mën ñoo doon këyit c'est façon naa yéene ñu régler loolu. man ci sama commission la bokkoon. Mhm. yooyu yëpp toutes les occupations irrégulières na woon nañ fexe ba régulariser ko. dans mhm. si ay dialogue entre les propriétaires et les occupants le redressement des lignes. yooyu yëpp dañ ko doon def. parce que je connais les problèmes du Sénégal dama koo dunda man problème bu ma tudd dama koy dunda ba tey jii bés bu nekk bu dégg bëccëg. man waxantuwuma loo bëgg ma jox la exemple am fan la naka la moo tax ma tànni ñi nga xam ne ñoo ñu war a jàppale mais ñoo ñëpp dañu fa jóge disparaître mhm. professeur Sourang maa toog mu toog monsieur le l'actuel premier ministre woolu ma fekk na xam ne ne mere naa leen bàyyi naa lépp muy dem nag di jéem a arranger élection législative yii yële bi jóge fii bi ko jiitu mhm. mu koy jéem a arranger di wut ay di wut électeur loo xam ne maa ko fi indi maa ko liggéey mu yàq ko ba doy yàq ba doy la laa wax ba mu demee ba bëgg a électeur daal di ko génn waat ne daf koy def daal di ma si invité ma daal di ñëw toog professeur Sourang yi toog mu indi affaire boobu ne lii lay def ma ne ko dama leen di jàppale ngir Sénégal la ñëpp ngi toog di ma dégg ma ne ko li ma woo dama fi ñëw parce que ngir Sénégal la bu fekkee nii da koy defar pour Sénégal c'est man ma xeex ko ak yow nga contre ma si pendant des années. moom Amadou Ba. moom monsieur le premier ministre. Mm-hmm. bëgguma tudd tur xam ngeen ne turam la. Mm-hmm. monsieur le premier ministre dama koy sagal nag mooy sama premier ministre nag man du ma du ma vulgaire. <laughs> bàyyi man may may wax tuuri kon waaw bu la neexee man maa ne monsieur le premier ministre yow nga ne diw sañ nga loolu man du tudd tur man damay jox nit cëram rek mais ku nekk xam nga ma. ma ne ma ne moo xeex loolu pendant longtemps. du mm-hmm. ma wax leerul. nañ ba mu demee ba bëgg ko ko woteel mu génn loolu daf koy def wooluma ma fa mu ñëw jàpp ci. Mm. ma wax si kanamu ñëpp ne naa si jàpp parce que dafa nekk sama xeex boo bañoon. Mm. mais bañ ko defee ba pare am na lu mu si yokk loo xam ne lu ma ko wax léegi ku xam droit bu baax bu ma la ko wonee di nga ne ndekete waa ji lii la doon nekkate xam na li may wax. mais wax ñu ko nag tamit. te loolu amul njëriñ ba tey. xam nga lu tax. Hmm? amul njëriñ ba tey. voilà le encore l'un des problème économiques du pays. Hmm. boo jëlee Médina Gueule Tapée Fass nga dem ngi Guinguinéo dem toutes les vieilles villes du Sénégal Ziguinchor yëpp au cœur de tout les vieilles villes du Sénégal tubaab bi dañu nangu woon suuf si yëpp def ko titre foncier mm. moom ko. Mm. sont en train de régulariser non. waaye moom laa la bëgg expliquer defuñu dara. defuñu ko. waaye bàyyi ma expliquer lañuy mm. ah, la ñuy régulariser xam boo yoree fukki baaraam rek la benn baaraam defoo tous. je parle d'économie l'économie c'est la macroéconomique lay tax kër yi bari dëkk bi ñëpp am alal mooy sama wax alalu dundooy sa bosa bosu kii tekkiwul dara si réew mi uh-huh. alalu ñëpp tekki uh-huh. wala alalu ñi si ëpp uh-huh. je parle d'économie économie du kër gi kër yëpp la la kër yëpp la alors tu prends toutes ces villes là ça au moins plus de deux cent mille maisons yoo xam ne titre foncier la ci turu état français. état sénégalais ñoo def ko si trop moo jaadul appelé d'après les léegi nag ku ci nekk français bi nangu sa suuf def ko titre foncier ci turam la abal naa la ko. permis d'habiter permis d'habiter oui. léegi Abdoulaye Wade si boppam moo ñëw ne dafay dindi loolu si xeex yu yàgg xeex mu ñëw ne bu mu ñëw daf koy dindi pour jox leen tiitre foncier bi ñu moom ko. Mm-hmm. mais daf leen koy jaay. loolu la bind ci loi am damay àggali de. loolu la bind si loi am yóbbu ko ba assemblée nationale man ma yëg loolu xeex ak moom def conférence de presse dal si ko am wax mu dabu assemblée bi gella la nag boo dëgg mu nangu ko mhm. dafa dabu assemblée bi génn waat fa loi bi joyaat ko parce que bu déggee luy jaar daf ko xam changé loi bi bind la ma ko bindaloo delloo ko assemblée ñu wote waaw la ma ko bindaloo parce que yow doo citoyen say loolu dara wax say amuloo droit si li nga xam wax li nga bëgg sa réew mhm. loolu kenn du ko ree ma kumba da nga ko sañ da war a bindaloo président de la mu bind parce que da nga ko fal pour mu yor sa kaddu yor sa impôt yor sa cër na koy jàppalee mooy nga gis fa mu juumee nga ne ko du nii la nga fexe ba mu def ko mooy sama cër de man comme citoyen Abdoulaye Wade tam mooy cëram bañ ko wanee yoon mu dem wote loi bi nekkoon léegi dañ leen koy jox titre foncier bi gratuitement mais joxe gratuitement boobu pour deux cent mille personnes mais saa aurait permis à 200 000 personnes d'avoir des titres fonciers. bien sûr xam nga nag lu muy jur. Hmm. ba ma créé commission boobu ba ma dajalee 90 personnes yi man on a l' association professionnelle des banques maa ngi yor dossier bi ak seen i lettres man lu ma wax kenn du ko weddi man du ma waxantu lu ma wax ba ma ko laajee ëllëg suba ma teg ko sa kanam. Hmm. lu mu doon man kilifa laa sa mag la hmm. du ma waxantu dara lu mu doon. parce que passé naa loolu samay doom samay nawle la ñu. dëgg la du wax lu ñu leen daan sa bàyyi def lii. mu am sama dunda alors ma ne la. dama oo la commission nationale l'association professionnelle des banque ñu bind ma lettre ne bokk nañu dama leen ne dañ leen andil deux cent mille titres fonciers à court terme dinañ ko liggéey ba deux cent mille sénégalais am ay titres fonciers war a tabax seen kër yu màggee ji Ziguinchor dakaar gee ngi new fépp donc dama leen andil deux cent mille clients banque day jaay xaalis bu amul ku mu jaay xaalis tëj banque bu amul ku mu lebal xaalis day tëj. dëgg la moo ko fi andi impôt itam banque yi ne ma bokk naa may da ngeen di wàññee intérêt yi kon loolu laa ñu ci boole pour faciliter les crédits avec taux d' intérêt faible mm-hmm. waaw mais léegi deux cent mille logements yooyu bu amul anu crédit yi anu xaalis bi sa gars yi ngi seen di kër yi baraak dankaloo foofu ba tey léegi nag ba monsieur le premier ministre actuel woo ma ba ne woon day def loolu ba élection yi wees jéem nañu ko jéem nañ ko def domaine boobu de permis d'habiter yooyu mm-hmm. permis yooyu jéem nañu joxe titre foncier yi mais boo demee Médina lu ëpp fukki nit wala ñaar fukki nit amuñu ko. nga dem feneen fukki nit wala ñaar fukki nit. Mm-hmm. alors comment je parle de centaines de milliers de personnes. donc il faut mettre en place une administration pour ça. bu ñu war taxaw. te nag c'est administration boobu. en fait je pense c'est la direction euh, moom moo doon gérer aspect boobu noonu. Ah, administration la rek. c'est ça ah administration fonctionnaire la ñu man dama ko doonoon xam naa luy fonctionnaire ah, ma ne je parle de choses plus sérieuses dama ne mettre en place une administration quel genre d' administration. quel genre d' administration ah, ah, chaque zone. Mm -hmm. oui, dans chaque on a 557 communes. dans, dans chaque commune oui. dans chaque commune y a peut-être 100 200 ou 300 ou 500 cas comme ça. duñ fa teg contrôleur des impôts. ne ko délégué nañ la liggéey boobu. teg fa nag contrôle des impôts boo xam ne dañ koy jàngal le droit privé parce que kër yooyu yëpp këru jamono tubaab la. Mm. këru jamono tubaab yi la. man doon naa sama kër maam fii ci gël Tapée même façon. Mm-hmm. après ñu jaay ko mais bañ koy jaay permis d'habiter la waa ji la mu mujjee moom xaw ma ko ba tey. Mm-hmm. mais kër yooyu yëpp suñu turu maamaati maam yee si nekk ba tey. Mm. moo tax Medina Gueule Tapée yëpp boo fa demee. Colobane da ngay gis kër gu cinquante personnes nekk. c'est ça c'est kenn xamul ko ko moom ku yor nga say këyit. hérédité yaa ngi mais moo jaadu Sénégal yëpp Sénégal yëpp la. mais am na ay kër yu ñu mënul jaay looloo la. et si on les forme dans le domaine de de l'indivision successorale ah parce que këru sama maam tey fa ma dëkk juddoo fa ñu ko moom tey ëpp nañu cent vingt trois personnes. Mm-hmm. je représente zéro virgule mais maay kilifa gi nag lu mu wax la ñëpp di def mais représenté wu ma fa dara en termes de pourcentage mais. il faut connaître le droit privé des successions et de l'indivision pour mën a régler ces problèmes là pour xam kan ngay jox titre foncier bi ak naka lañ koy joxee donc tous ces agents la il faut qu'une administration les forme pour ça ñu mën a comprendre kay ñu di andil lu mu tekki man ko teg si yoon mën a fexe ba dans tout le Sénégal un grand mouvement un grand mouvement départ c'est les grands mouvements qui font les peuples mm-hmm. c'est pas Doudou Ndoye c'est pas Makumba Bey c'est pas ñetti nit yu am xaalis c'est faux nation ñëpp la fii ku fi wax rek sa xel teyoo ko nag teyoo ko mm. Dakar nga nekk li xew Dakar moo nekk sa con sa subconscient mm. mais yow wëri leen Sénégal dem leen Matam dem leen Podor mm. dem leen Tambacounda dem leen Kédougou dem leen Kaolack dem leen Diourbel dugg leen si àll bi il nous reste pas beaucoup de beaucoup de minutes boo fekkee dafa am ay titre privé yoo xam ni ca tubaab yi jamono ñoom ñoo ko moomoon fi mu ne nii léegi ku koy ku ko bëgg a jot. état du Sénégal ko moom tey. Ah. parce que dans les conventions de la France le Sénégal. lu France bàyyi c'est muté au du Sénégal. moo tax ma ne Abdoulaye Wade nag français yi du ñu ñëw sàcc suñu suuf. def si seen tur. Mm. yow nga ñëw doon na loolu di ma ko jaay. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu ma doon sama histoire ak moom. Mm-hmm. moo tax mu dabu loi bi ne waa kon jaayuma la ko dama la koy may. il nous reste une vingtaine de minutes euh, d'émission euh, on va euh, on va accélérer la cadence. ba ngay wax sànq di que quand même deux logements. deux cent mais est-ce que xay da ngeen ko xayma tam si parce que xaalis bu dul jeex la sans compter. tout le reste loo xamante ne avec une de l'habitat. c'est évident c'est une économie extraordinaire. mais c'est une richesse du pays. mais je l'ai démontré je l'ai dit j'ai appris la commission de des banques de toutes les banques ñu ne dañuy def suñu xaalis wàññi intérêt yi. Mm-hmm. mais loolu yàqu na. et l'état l'état n'a pas. oui l'état l'état c'est des petits politicards des petits politiciens yoo xam ne ils font ce qu'ils veulent et je, je regrette c'était simple li may wax monsieur le président de la République moo lu ma ko gën a xam gën ma ko xam. Mm-hmm. parce que lu ma dul wax daf fi am fañ ci tollu ma ak moom du ma ko wax nit du ko dégg sama làmmiñ mais xam na li may wax ne dëgg la. mais maire Doudou Ndoye est-ce que du problème boobu kon moo ñu topp ba ci marché Sandaga xëccoo bi ci am diggante mairie Plateau ak mairie de mhm. Dakar. bon problème marché Sandaga problème ponctuel la kooku ak lii bokkuñu. Hmm. parce que li may wax c'est national. Hmm. Euh, marché problème marché Sandaga marché Sandaga titre foncier la au nom de au nom de la ville de Dakar. Hmm. titre foncier au nom de la ville de Dakar. mais ville de Dakar ko moom léegi nag jàppal ne. jàppal ne maire Ndakaaru ak président de la nag ay noon la ñu nag. Mm. léegi nag xëccoo noonu politicien man dugguma ci bàyyi la ñu seeni problème. mais daal titre foncier bi. Euh, mais dañuy wax ni amoon na benn arrêté préfet boo xamante ne nii. moom moo ko joxoon la mairie de Plateau. arrêté préfet dafa mën a changé titre foncier jàmbur titre foncier bu nekk ville de Dakar <laughs> arrêté kër yow. te xamul luy titre foncier. <laughs> arrêté intervénier moo ñëw nangu sa kër titre foncier bi nga jël dëkk ci. <laughs> ku la ko jox arrêté bi. mais euh... est bi jox nañ la ko. <laughs> non dama la poser question léegi maay journaliste bi. est-ce que jox nañ la arrêté bi nga jàng ko am na lu ma la wax sànq. est-ce que jox nañ la arrêté nee naa la sànq. ku la mënti wax lëf si Sénégal ne ko jox ma kayit bi ma jàng ko. nit ñi dañuy xàppati di wax rek. xamuñu li ñuy wax. man du ma dugg si benn wax boo xam ne neew ma la mu ngi nii sa bët. d'accord man loo ma laaj ëllëg huit heures mais mais ba tey ci même problème boobu est-ce que mën ngaa. <laughs> Charles kay. est-ce que nga ne ko ndax kayitu préfet mooy dindi sa titre foncier. ndax mooy nangu sa titre foncier kon expliqué li titre foncier ndax moom ñu gën ko xam titre foncier titre bi. non non non leer na. ah leer na leer na li mu wax. d'accord donc c'est euh, bon par exemple est-ce que <laughs> mën nga jóge fii parce que coowul ndeng leer la bi mu amee ak suuf sañ fa jëndoon ak yu mel noonu dañ ni lu yaatoo noonu kenn waru ko def titre foncier di ko moom yow lu ci sa xalaat noonu nga ko gisee wala. waaw ah, mais attends Sénégal lu jëm si suuf si kenn mënul wax lépp. dëgg-dëgg hmm. parce que tey si domaine national boobu mille hectares deux mille hectares état du Sénégal day ñëw xamul loi sur le domaine national dafa sob day loi bu sob bu doy waar loi bi dafa ne nangu naa suuf yëpp nation bee ko moom. Hmm. mais état bi nag moo koy gérer nation bi. mais état bi saa yu ko neexee mu moom ko. dégg nga loolu. ñu <laughs> yóbbu ko domaine privé. saa yu ko neexee mu moom ko <laughs> loi loolu yëpp. Ah, ma si gis loolu Charles. <laughs> yow su suufu maam. mel su nangu naa ko nation bee ko moom. d'accord naa maa koy gérer mais saa ma neexee mu léegi saa yu ko neexee. mu dem jël deux mille hectares. ne maa ko moom sama titre foncier la. Hmm. may naa ko soxna si. Hmm. xam nga kooku c'est pas si suñu réew. Hmm. moo fi am. li fi am nag man sama commission foncière bi ma doon def. narul woon xeex kenn maladie yi nga xam ne dañ ko gisee mu bari lool dañ dañu amoon solution pour faj ko faj goo xam ne nag njariñu Sénégal la. Mhm. du njariñu keneen c'est nag ma yokk si dara war naa si alxuraan bu amoon dañ doon def. Mhm. président Macky Sall fii ba fii ba Afrique du Sud. nit ñi dañ koy seet si pour di ko tagg. pour mu jox leen modèle bi ñu def ko seen dëkk. parce loolu banque mondiale ñëw na ba sama bureau wax ma ko. waaw mais léegi. intérêt kan lool waaw intérêt kan nga doon déranger. ah. c'était les de kii moo qui était dérangé. maanaam commission bi. xool leen li ñu wax fii yëpp ne moom la ñuy def léegi 2000 hectares yi wax léegi ndeng leer li ma la waxoon moom la demee. ah dafa nga ne fekkoon ne fexe naa ba yooyu amul. yëpp rek la yàquma ay intérêt. Mm-hmm. Ah, kon Charles sa question réponse <laughs> lu nekk am na nag lu am si ginnaaw. on va peut-être prendre mais mais man jaaxlewu ma naqadiwu ma. awma si benn problème àddina li ma si mm. am mooy lu may def mu war a jëriñ Sénégal mm. ka ma koy defal nga xam ne moo ma ko def loo bu ma demee ba gis ne am na loo xam ne mënatu si nekk ma delloo ko ko si jàmm mu wóor mee na keneen du ko def parce que coono boobu si naroon am ak li ma si naroon daj ak li ma si naroon ñàkk wallaahi Sénégal mënu ma ko fay parce que maa xam poids wu liggéey boobu te kenn mënu ma ko fay mm-hmm. maa wax loolu si kaw parce que nag bëgg sama réew gëm loolu avant président di ma jàppale ma si suuf. parce que ba may xeex loolu boobu xalaatul woon sax dina nekk premier ministre. Mm-hmm. ba mu juddoo ba tey maa ngi si loolu. ba mu commencé jàng di am xam-xam ba tey maa ngi ci. parce que dama comprendre rek. Mm-hmm. man dama comprendre d'où vient mon pays d'où vient euh, d'où viennent ces choses là dama ko comprendre dama ko liir dans les livres livres d'histoire anthropologie façon bu nekk ba comprendre les chose xam ne man nañ koo defar du ñu xëccoo kenn du ñu xeex ak kenn redresser suñu réew macro macroéconomiquement hmm. man sama solution lépp économique la maanaam ensemble bi daal man doomu ndakaaru pire laa si lépp nag mais jogandoo mais Tambacounda Matam hmm. Podor laa xalaat hmm. feex xalaatuñu loolu ndakaaru jàmm du fi am si kenn du fi am loo neex je rappelle juste que am invité sama téere ngi ni l'injuste misère du monde rural l'injuste misère du monde rural bind naa ko l'injuste misère du monde rural vingt pages la 2003 hmm. wax naa ci loo xam ne boo ko liiree te xam ne moo xew tey c'est la ñu waroon def si kenn defu ko <laughs> je je je rappelle juste qu'on qu'on a comme invité donc maître Doudou Ndoye une des icônes donc euh, du barreau euh, euh sénégalais. waaye du ma icône barreau non icône nga. parce que yaay premier premier avocat avocat noir bu nekk ci ci biir cabinet euh, donc cabinet français. non avocat la rek avocat la non mais icône nga. parce que yow li ngay li ngay wax comme li nga wax am na ñi nga xamante ni yow yaa leen jàngal ba jàngal ki leen jàngal ah, loolu c'est pas man tam dañ maa jàngal waaw c'est loolu ce n'est maa jàngal icône ma jàngal jàngale nañu dëgg la yëfi jàngalante rek la jàngalante rek <laughs> en tout cas icône nga euh, ci baro euh, fii ci euh, maa ngi jàng fii seen toogaay waaw question Charles yu pertinent ah, yu am yaa ngi ci kii non yéen ñaa yéen a bokk ba waa Ndakaaru ngeen donc c'est normal que seen dañu complice <laughs> gis naa nag <laughs> mu ma rus nag laalu moom Euh, parce que débat mi moom yenn saa yi mu cuuf c'est bon <laughs> mu ma bàyyi di reetaan la bu sew euh, ñi ngi ci dernière euh, minute yi ci émission bi on a abordé plein donc de de question peut-être une dernière question pour Charles une dernière question pour Makumba balaa ñuy ñëw euh, ci li nga xamante ni moom mooy euh, album bi parce que boobu aussi c'est des moments de souvenir bon euh, waxtu wi dam nañu malheureusement am na lu bëri lu ñu bëggoon wax ci sa enfance sa cursus scolaire ak professionnel sa engagement sa trajectoire donc peut-être politique peut-être une question pour Charles une question pour Makumba messieurs. waaw peut-être son rêve dakarois. oui gént Dakar ban Dakar du ma Dakar sama rêve mooy saa yi ma génnee si mbedd mi lu ma neexul laay gis. Mhm. mooy dakaar amatul trottoir. il y a huit ans naa benn article si benn journal bind si Dakar ville sans trottoir c'est àddina ba ñu koy xase nag àddina bi laa wax ñun ñu koy xase. Dakar capitale bu amul trottoir mënoo dox si trottoir. mais Dakar rek laa ko gisee. kooku sama rêve la. que Dakar soit une ville avec trottoir. mais trottoir li nekk si mbedd mi dafa war a jógee. c'est incroyable nit ñi di dox si trottoir. mais tali ngay dox ak puus-puus ak sa oto. mbëkkante bi poussière saleté Dakar day am trottoir ba pare nag si trottoir yi ñu saxal si ay garab. ville sans arbre. man c'est mon rêve pour ville bi am trottoir. ñu saxal si garab. nit ñi bu ñuy dox si naaju tàng bi dox suufu garab mm. dox si trottoir mais le reste nag capital la day bari nit kenn mëntu si dara capital la mais capital tam dañ koy setal capital dañ koy defar seen ak defar defar mooy def lu naq di nit pour defar il faut nga def lu naq di nit uh-huh. boo bëggee luy neex nit ñi rek doo defar dara sa biir kër dara lu baax du fa am mm. defar il faut nga décider luy neex lu dul neex ay nit. ba buggee la ngay def yëpp neex ñëpp doo def tous. il faut prendre des yu jaadu ku ko muñ ñetti at ku ko muñ ñeenti at di nga gis njariñ mais xëy suba ne tey la def leen looy neex looy def baax na dama leen bëgg a raay ngeen di neex la d'accord ma si loolu man dëkk dañ koy defar kër dañ koy defar bureau dañ koy defar nit ñi di liggéey à l'heure bu Dakar heure amatu fi lu ay neex def heure bu ko neexee ñëw. ñëpp ngi taafantaloo nag circulation bi difficulté yi mais boo xamee ne yow ñu ngi lay xaar 9h boo jógee sa kër 8h can da ngi dal jóge fa 7h. boo jël naqar gi lee mu jeex. boo jël avion sax da ngay teel a dem. naqar gi lee mu jeex. Uh-huh. donc il faut que cette ville soit régulée régulée ñu xam ne ville la ñu nekk c'est tout. léegi nag ñu defari la dul Dakar ci sama livre bii. bu tuuti bi nee naa il faut développer les capitales régionales partout Thiès dafa waroon nekk tey ville bu mel ni dakaar mm. Louga mel ko. Diourbel mel ko Tambacounda mel ko. Ziguinchor mel ko bu ko sigee Ziguinchor meloon doo fa gis ñetti Casamance fii mu daan mm. ñoom ñëpp nga fa. Mm-hmm. bu ko Tambacounda meloon doo fa gis waa Kédougou fii mu daan ñëpp nga Tambacounda. donc il faut développer les capitales régionales. ñoo indi loolu yëpp teg ko Diamniadio fii Diamniadio buntu Ndakaaru la biir Ndakaaru la alors ñu fa defee lu mu jëriñ. Diamniadio Dakar la. moo tax ñu sax région de dakaar dem ba jam euh, Diamniadio bu yàgg région du Cap-Vert la tuddoon léegi tudd ko région Dakar Diamniadio Dakar la loo fa mën di def Dakar nga ko def. alors que loolu yëpp ma na dem cees dem Diourbel. dem Matam dem Podor. dans les grandes villes des régions. ba pare jam ñaajo nekk la ceinture bi dundal Sénégal. parce que suufu mbay la woon. c'est ceinture tey jii. tey jii on pose le problème de la nourriture. c'est ça. bindoon naa misère du monde rural. Mm-hmm. en parlant de la nourriture a doit préparer. Mm-hmm. muy si livre bi ma bind il y a vingt ans. Mm-hmm. alors tey jii lu xew on se pose des problèmes alimentaires. ganaar amul <laughs> dañu bëgg wàññi prix carotte ji daal les prix yaay dem ci euh, ñaay ba naan jaaykatu carotte ji wane leen seen njëgu suuf. sa njëgu karoot wax ma seen njëgu xar seen njëgu ganaar yëpp xam naa lu muy jar parce que si laa dëkk maa ngi guddi maa ngi si ñëpp ganaar dama nga ca 4000 ñoom ñoom ngay wàññi da ngay dem sa tante yow mi yari ganaar si këram di ko jaay si suuf nga ko wàññi sa njëgu ganaar bi parce que parce que président wax na ko attendez donc on n'a pas fait de l'économie ay arrangement dañu arrangé ay situation lii naqa dinañu faj ko lii naqa dinañu jëm ko faj non da ngay am programme économique taxawal ko sa réew boo fi jógee ki ñëw raa continuer mhm. parce que doo fi des ba foog. kenn man li ma bëggoon ñu terminer comme question. ma kumba maa ngi jën wax yow di wax rek. wax nga dëgg kay. <laughs> fan yee dañoo génn conseil des ministre ñu ni président nee na sas na ministre de la justice mu fexe ba politicien mu fexe ba ñi amul ñi perton seen i droit eh, waxul politicien waaw waaw moo tax ma rectifier ñi perton seen i droit yu ñu mën a voté ñu retrouver waat ko ñëpp gis ci ñaari nit xalifa Ababacar sàll ak Karim Wade ñëpp itam gis ni wenn yoon la mooy amnistie yow ci principe bi loo ci xalaat ak modalité yi nan leen ko war a defee. déedéet ñëpp gisuñu ne benn yoon la amnistie de déedéet. Hmm. juum nga de. Hmm. ñëpp gisuñu loolu. ñu bëri bokk. ñu bari sax ña ko gisoon ñëpp juum nañu dellu nañ dellu nañ ginnaaw. Hmm. déedéet ña ko gisoon ñëpp dellu nañ ginnaaw. président ba mu génnee ci conseil des ministres amnistie la tudd. nit ñi mhm. gis ñu amnistie moo tudd amnistie. parce que tam opposition bi ñoo daan wax ne def luy ñëwee assemblée dañuy fexe ba am loi d'amnistie. Mhm. président ñëw fekk leen ci. Mhm. loolu la. man ma ñëw ne déet ñeneen tam ñu mel ni man ne déet du man rek dañu démontrer ne loi amnistie mënu fee am sa waru fee am. bu ñu ko defee musiba la erreur bu rëy rëy la Sénégal nag erreur yàgg na fi néew ma kenn du ko def. waxuma loolu de dewuma kenn bu ko def mais bu ñu ko defee li fi yàgg moo fi ñu amal rek erreur yu garaaw la te ma du loolu kon électoral bii code électoral bii moo wax ne buñ la tëjoo kaso mënatoo wote su comme que nag Karim Wade xalifa Sall tëj kaso boobu moo tax wotewuñu nañu dindi article boobu mu jeex ñu wote ji mm. te ku mën a wote nekk candidat mm-hmm. loolu laa démontré nag service la justice bii nekk fii tey nangu na ko wax na ko loolu Macky Sall santewu ko loi d'amnistie daf ko ne seetal ma li nga jëkk ko wax lan mooy sawee ñu wa ñu wotewul mm-hmm. nangu na lii ma wax c'est ci lii ma wax la ñu nekk tey yaakaar naa ne fa la ñu jëm bu ñu ko deful nag duñ def dara parce que loi d'amnistie baaxul fii si lii mm-hmm. waaye di wax diw woteewuñu di wax diw kenn mënu leen fal mais la leen teree falu rek ngay dindi. Mm-hmm. mooy article ba ñëw ba xam ne nii dañ leen woteel nag wax di foofu la féetee. article moo ne ku du tëj doo doo doo doo doo wote duñ la fal waa article boobu ngay dindi jeex bu fekkee ñoom nga bëgg a sawee bu fekkee leneen nga bëgg nag da naan ku mos sàcc xaay ku sàcc xaayu Sénégal baal naa la loolu mooy loi d'amnistie mm. waaye ñu sàcc xaayu Sénégal nu ñu toll xam nga wala ñan la wala ñan laa bëgg a baal ça commence à faire man ne déet bu leen dugg si loolu ku jax ku sàcc àllu réew bi ku yàq àllu réew bi ku def enrichissement si réew bi jéggal nañ la loolu mooy amnistie bi. te yeggaguñ foofu. duñ fa àgg. fuñ ah. jëm lu tax ñu fay àgg. kooku hérésie la loolu kenn du ko def si réew. Mhm. amnistie dañ koy def si délit politique. ku mel ni tey suñu seen journaliste bi ñu jàpp. article quatre-vingt mën nañ ne article koo xam ne dañ la topp si trouble ordre mhm. public. Mhm. article quatre-vingt yooyu amnistie nañ la en fait tout ça c' est de l'élan politique. mais ku sàcc àll réew mi amnistie naa la. Ah. kon kañ kon kañ ma jëli ëllëg. fàtte naa ah, fàtte naa nga jëli ñu baal. de de telle année à telle de telle année à telle année. Mhm. Ah, ku réew mi nga sànk rek naa la. <laughs> te yaa ngi lebi àllu réew bi mhm. war a fay bor yi. suñuy doom ak kenn mosul def loolu. benn amnistie mosul am si benn dëkk pour des raisons financières. amnistie mhm. financière mosul am fenn. si benn dëkk. encore une fois de plus. comme benn loyer boo xam ne dañ ko wàññi massivement si dëkk bi yëpp amul si benn dëkk naa l'histoire de l'humanité am amnistie politique mooy am. pour de délits politiques et des faits politiques. pas des faits qui touchent à des deniers publics. Mm-hmm. à l'argent du peuple. moo tax may leen moytu leen loolu dem leen si gën a yomb la ngeen bëgg a faj faj leen ko si noppalu. Mm-hmm. mooy lu aayu. yi la tere woote. ñu ñu effacé boobu rek. benn ligne la rek. <laughs> en tout cas c'est très clair. c'est man nag pour terminer avant ñuy ñëw ci euh, ci euh, ci ci photo yi internautes yi nag euh, maître Doudou Ndoye tey moom dañoo déchaîné wu. ça se voit que maa ngi lay wax ne la icône ka nga naan non c'est avocat la mais euh, voilà wone na ko euh, ci internet bi bëri na mais peut-être question bi euh, gën a bëri suñu waa régie envoyé ñu ko mooy droit liggéeykatu ama Sénégal yi dégg naa seen avocat fan la dossier bi toll. liggéeykatu ama Sénégal yi. bon mm-hmm. loolu mën naa ko wax du affaire ku ñu tëj kaso yooyu. waaw loolu droit du travail la rek. ok sur la justice pose de gros problèmes. Mm-hmm. ama Sénégal yi. dafa am société bu tuddoon ama Sénégal. Mm-hmm. am beneen société bu tudd ama international. oui bu jóge Italie. oui ama international boobu moom ama Sénégal bii. Mm. ama Sénégal bi dem liggéey liggéey ba rës fayit amatul dara international bon lii fayit dama koy tëj. Mm-hmm. ñibbi Italie mais ama Sénégal bi amoon na matériel bu bari sa ameel na personnel bi nanu jaay matériel bi fay personnel bi. signé accord nag ak état bi. si loolu dem ba mu neex leen état bi ne ne nañ signé beneen accord yóbbu leen matériel bi mu dem. ñu yóbbu matériel bi kon matériel bi fi bàyyi woon ne koy jaay pour fay si personnel bi gouvernement bi mu jël nangu pour yóbbu ko sa yi am na ñu bor. loolu nag ñun ñu nekk avocat ama Sénégal masoon na kan. moo doon avocat ama Sénégal moom mooy avocat principal bi. man dama ñëw jàppale ko si. mais mm-hmm. moom mooy avocat principal bi. Mm-hmm. moo jiitu ma nekk surgëm si dossier bi xam naa mere na ma si li ma wax léegi ne maay surgëm. Mm-hmm. parce que moom boo waxee mu ne mooy sama surga. <laughs> mooy sama surga général. mais maay surga particulier si dossier bi. alors ma topp ma jàppale ko ci nag. léegi nag ñoom état bi gis na ne war na fay am Sénégal benn at. mu joxe avance xam nga ñoom bu tabaski jógee ñee rek ñu profité <laughs> fexe ba nga jënd saxaar xar rek après ba ñu xaaraat ba déwén loolu la ñuy def ñëpp noonu la Sénégal di fonctionné tabaski tabaski màggal et cetera donc <laughs> macroéconomie bu yor ñëpp xamuñu ko dañuy ay mesures rek la ay problème rek saa yu tabaski jógee ñee bu ñu nee tabaski fii ak ñetti ñu yónnee chèque <laughs> mason na kat jot man na jot am na guddi goo xam ne toog naa sama bureau ba sept heures du matin hmm? sept cent personnes rek nañ sama bureau 700 personnes. jaaxle rek jox chèque. 17 heures ba 7 heures du rek. Mhm. ay jigéen yu boot seen jëkkër mhm. dee nañu ay doom yuy rang am na ko xam ne dafa jógee dee. Mhm. ci sama bureau la jógee dem dee. wax na si yàlla mbedd mi guddi gi ñuy rang ba gaar rek ma toog suma bureau ba bët set xasaw xun na ah, waaw man bu may liggéey du ma caaxaanu ma may may séddale ma soxna kan di séddale parce que dañ koy séddale <laughs> mu recevoir ñi ma recevoir ñi muy jox ñi may jox ñi def nañu ko ñaari at ba mu yàgg nag ne nii faaleetuñu état bi état ku ko mën a poñe ku ko mën a dóor état doo ko poñe état doo ko dóor état doo ko siif état doo ko saisir état doon nangu otoom ne ko amee na ma looy def yuuxu rek gaa ngi yuuxu ba tey ma soow naa ngi yuuxu man naa ngi jooy mm-hmm. yenn saa yi ma soog na jooy ma tàpp tàppal ko yenn saa yi gaa yi dal suñu kaw nañu defu leen dara seen wax nañ ba dee lu ñu ci mën ñu ngi topp sa du ama Sénégal rek ñaata léegi. man xamatuma ko de. Hmm. vraiment en tout cas quelques milliards eh, la. vraiment mënuma wax ne trois milliards et quelque la mënatuma wax ne six milliards la. Hmm. parce que fi ma toog nii. Hmm. tiimuma kayit yi xaw xaw ma chiffre yi quoi. mais ay milliards la quelques milliards la daal. di am yaakaar ne dina mais yaakaar gi mooy. il faut ñu wax état bi la ñuy góorgóorlu faye bor parce que fay bor am bor dagan na. fay bor dagan na mm. mais bor dafa am nu ñu koy fayee mm. am na fu ma bind si assemblée nationale bi ak le président république ne àddina dañ koy waxtaane mm. bor bu mu doon dañ koy waxtaanee yow boo ma amee les trois milliards mënuma ko fay man nga ma ne eh dàqal bi def ko deux milliards sa mm-hmm. deux milliards bi naa dafay cinquante millions ñetti weer yu nekk mm-hmm. mais day fekk nga étudier sa bopp mm-hmm. xam li ko boole ko lépp fexe ba ñu nangu ko nga fexe na ba ñu respecté ko boo mënee loolu koo amee bor na la jéggal mais amee naa la maa am doole faalewuma la toog di la xool <laughs> loolu da yàq réew mhm. waxtaan moo yore réew mhm. lu nekk ma nit mën ne ko régler si wax ba mu sotti mhm. lu mu doon nag ñu ñu ñëw euh, ci ci pàcc bu mujj euh, bu euh, déclic daanaka presque cinq minutes moo ñu desee donc ci émission bi avec la complicité de la régie dañ lay won ay photos très rapidement Euh, nga wax euh, li nga xamante ni moom nga ci rek euh, moom la moom la indi comme souvenir leen jox waa ay photo yi ñu jox di wax na aussi nekk bëgg woon ñu defal la témoignage donc maître Massokhna Kane maître Doudou Ndoye donc très spécial donc voilà mais invité bi moom lu mu lu mu bëgg rek lañ koy defal donc nañu xool invité photo yi ñu ñëw très rapidement en quelques mots ñu ñu commenter ko la première photo bi mooy ban kii kii mooy promotion 1935 commissariat centrale de Dakar police alkaati sama papa bi ma yar di sama baay moo ma yar mais maa ne sama baay si lépp nag moo doon chef de brigade bi chefu promotion bi boo xoolee si suuf côté gauche nga départ gauche mhm. départ gauche ki si topp mooy Alaaji Gomdooy Mhm. moom la ñuy bind suuf El Gom Ndoy chef de brigade. Mhm. El Gom Ndoy. Gom Gom surnom la Abdoulaye Ndoy la tudd. mais ñëpp Gom la ñu xam. Mhm. Gom surnom la mais boo nee Abdoulaye Ndoy kenn xamul mooy kan Gom Ndoy nag moom lébu buy nekk Cap Vert xam nga ko. moo tax El Hadj Gom ñu bind même police El Hadj Gom Ndoy la bind. parce que photo bi defaruma ko bind bi police ko bind. kii promotion 1935 la. Euh, parvis commissariat central ma est-ce que ma commissariat central. foofu la ñu ñoom seen biram ñoom sama papa Gom ak ñoom El Hadj di sa jóobu gël tàppe ñoom ñëpp ngi nii. Mm. promotion boobu. kii nag mm. mooy lépp. Mm. samay mémoire jeex na. sama tome 1 génn na tey. mu ngi nii jox samay mémoire ngi mm-hmm. moom laa ko déjee ak jabaram Aminata Dieng. Mm-hmm. ñoom ñaara ma yar. moo tax si biir mémoire bi dama ne ñaari pap laa am ñaari yaay laa am. macha allah ma gëm ko nag mu ne si man. Mm-hmm. waaw c'est boo leen ko liiree di ngeen xam sama digganteex sama baay bii mm-hmm. moo tax da dama ko def sama lépp mm-hmm. livre bi dinañ ko wane euh, ci bu avant ñuy jeexal donc euh, l'armatan bi moo ko liggéey muy liggéey bu rafet mm-hmm. macha allah photo couverture tome 1 la nag je l'ai le gouver le des hommes le gouvernement des hommes le temps des juristes gis gis naa loolu c'est li ma ko jeexalee dama ne j'espère que j'écrirai le le tome 2 incha allah le temps des libéraux le gouvernement des choses incha allah ah joxe nga titre bi dernière écriture bi avant photo yi avant photo yi. juste avant photo yi mooy li moom mujj bind ci conclusion bi. gouvernement des choses ça gouvernement des choses le temps des man ci maa ngi bokk ci le temps des juristes gouvernement des hommes. Mhm. mais nag may dund. c'est le temps des libéraux gouvernement des choses. Mhm. loolu nag laa bëgg la générosité divine euh, m'est encore le temps de livrer le tome 2 de mes exercices de mémoire consacré au temps des libéraux le gouvernement des choses. <laughs> ay révélation yu. on prend la deuxième photo très rapidement. il faut. ñu ñëw si deuxième photo bi. kii moom. sama promotion la bi nekkee deuxième M3. au lycée Van Vollenhoven mooy lycée Lamine Gueye yu tey. Ah. boo xoolee si kaw à gauche kooku tiim teen bopp bi. noonu di sourire waaw waaw. waa ñu jeune homme bu rafet boobu teen di sourire. à sa am na ku tokkal lu ne du ñuul. kooku mooy Tera Moulay Idriss. si suufam Gabriel Fall Gabriel Fall laa wax ne mooy doomu Adrien Fall bi doon président Jeanne mhm. temps ba ñuy nekk ñoom si suñuy ndënd. Gabriel mii ak man ak ñeneen ñun ñëpp ñoo doon les dandys de Dakar. Mhm. mais nag xoolal nag ñi ñu wër yëpp. jongoma tubaab yaa ngi nii wër ñu ñu daan doxal ak ñoom di bokk ñoom lycée di football di bokki business. affaire baa ngoog. Ah. yii c'est lycée man ma doon nawet. c'est ah. ñuy làkk français. mooy temps ñuy làkk ah, jamono neexee woon. neexoon dëgg na neexee woon wallaay wallaay. Euh, une autre photo. Vieux Diouf xanaa da nga kële kële si El Hadj Malick la El Hadj si ah sama maama ngoog. sama benn maam. sama xarit. waaw sëñ Abdou Aziz si Dabaax moom mii moom mii magam sëñ Babacar si mm-hmm. moo teg sama yaay si óomam sama yaay nekk liir mm. mu tudd ko seen mag ju jigéen taawu Cheikh Sidi Hadj Malick jëkk bu teel a dee mm-hmm. Asiyatu si mm-hmm. moom lañ tudd sama yaay si sëñ Babacar a ko def sëñ Babacar sama kóllëre maam la woon saa yu ñëwee Dakar sama kër maam la ñuy dëkk Cheikh Tidiane si sëñ Mansour sëñ Abdou Aziz Sy Junior ñoom ñëpp xam nañu loolu ñooy sama nijaay kay sama maam kii boo xoolee nañu mel maam moom nañuy def nii nga xam ne ñu xamante la mm-hmm. ñu miinante waaw c'est man dama ki ci la moom la maak moom la Tiwaawan la mu teeru ma nii mm-hmm. ma toog moom si suuf macha allah très belle mbokk suñu suñu famille kii sama famille la sa famille man fa laa bokk macha allah si famille baneen a ngi ñëw tam waaw mooy photo bi. bii tam kii tam fa bokk. kii sëñ Abdoul Ahad Mbacké xalif général des Mourides. Mm. moom cousin wu sama soxna la. macha allah sama papa soxna ni la si Mbacké Mbacké la ñoo ko bokk. Mm-hmm. waaw mu miin ma xam ma xam ko mu bëgg ma jàppale ma lu ma mos dal ñu woo ko wax ko lu mu doon. c' mm-hmm. est bii rek boo xoolee bi ko jiitu. Mm. nañu bokkante nga xam ne ñii xamante noonu. Mm-hmm. waaw damaa bokk Tiwaawan bu mat sëkk. ñu boole ma ñu boole ma sa Touba ba mu mat sëkk. macha allah. kilifa yi nag bëgg ma nekk samay xarit. lii nag moo ma neex na kii moom. affaire baa ngi. Doudou Ndoye de footballeur a ngi nii. ah waa licence ba. bi ci kaw Doudou Ndoye ministre de la justice licence football am comme ministre de la justice. Ah. tournoi international de football xoolal ni ñu bind waaw ba ma nekkee ministre de la ah, justice. ba ma ko ba ma ko nekkee. Dior Sow Fall magistrat. nekk fa directeur sama ministère laa ne organiser ma tournoi football ministériel avec la presse <laughs> presse bokk ci ministère yëpp ministère yëpp bokk ci ñu am licence maa jëkk am licence sama licence gi la hmm. ma daan dugg ci terrain bi comme ministre de la justice maag samay greffier journaliste yi ñu may daaneel may yuuxu di génn di marqué bi ñuy marqué. <laughs> day sax ah oui di ma dóor si terrain bi di padd di fayu. mais nag bu ma fa jógee ba sangu ba set ba sa ëllëg sa. Euh. ku ñëw rek leen. <laughs> ku ñëw fii du de kilifa gi kilifa gi ñëwaat na <laughs> kii moom sama licence footballu ministre la moom dama ko fonk. si suuf si suuf euh. sama licence football scolaire universitaire. waaw parce que ba may nekk waaw ba may nekk lycée Van Vollenhoven. maa doon capitaine équipe football bi. Euh, ba génn lycée. Uh-huh. sama licence gi nii. damay grand footballeur man nag mosuma xam ne footballeur la. tey laa ko découvrir bal dong laa bëgg. dama ko xam ba mu jeex. non non loolu moom c'est vraiment tey moom c'est une grande découverte pour man fu ma dem sama àddina. gis nga sama étude bu ma mosoon a am France football ma fa sawee. man football tax ma doon avocat sax. Ah? pratiquement. comment par accident. <laughs> man hmm. ba may nekk. ba may am sama diplôme droit Montpellier war a nekk professeur foofu loolu laa xalaatoon samay xarit ñi nga xam ne ñoo bokkoon équipe football faculté bi samay xarit tubaab may dëkk seen kër dafa fanaan bokk ñoom lu mu doon nag si France lépp nag bokk kër seen i bàyyi seen i ndey nekk samay yaay. Mm-hmm. nekk yaayu samay jabar yaayu sama doom yaayu samay sët. sama famille sama famille yi ne France samay moroom bokk bokkaloon école université dem bëgg doon avocat. Mm-hmm. daal dem defi examen yi pour dugg a dem inscrire pour enseignement un an. sañu bokk club football am fa équipe ma bëgg football si équipe bi daal dem tam inscrire fa. <laughs> kese pour bokk si équipe bi toppaleen si bal bi. mosuma jàngi nag at mi yëpp foofu dama inscrire rek topp bal bi ba un jour ma jot invitation ma jot convocation. ma ne hmm. waaye lii lan la nii. examen pour le CAPA du barreau à la fin de l'année tel jour telle heure ma ñëw toog damaa admis ba passé admis. mosuma kenn mosuma faa jàng. Dieu ne se trompe pas. damaa admis <laughs> paaj bi may ñëw CAPA profession d' avocat. Uh-huh. fi. waaw ba ma fi jóg. ñu ñu koy doon avocat yëpp amuñu ko. kayit boobu moo tax ba ma liggéeyee Sénégal dix ans ba nekk ministre de la justice ba pare ba génn boobu CAPA moo ma permettre ma delluwaat France Marseille. jox leen ko nekkaat fa avocat prêter mm-hmm, mm-hmm. dama prêter serment à la cour d' appel d' Aix. comme nouveau avocat avec sama papier mm-hmm. amul kenn ku ko fi amoon ku ko mënoon. mais nag accident la woon que ma defoon ko. loolu rek la du ndam si man. te loolu yëpp bind naa ko samay mémoire. moo tax. ma dellu nekkaat avocat France. Mm-hmm. associé fa yor cabinet Paris nekk fa mm. avocat ba mu neex ma ma retraité. Mm-hmm. loolu tontu naa leen kii nag moom kii <laughs> lébu bi la. kii espadon ah, fii la ñu fii la ñu déparé. jën bu neex a ngi nii. Euh, euh, hôtel de Ngor Méridien hôtel de Ngor bu mage bi si Ngor. si plage Ngor. dafa am kee keewu. waaw euh, bateau de pêche haute mer. Mm-hmm. foofu laa déparé monsieur Roublik. kii monsieur Roublik la moo doon directeur Bernabé hmm. dañuy loué bateau dem fii suba teel dimanche haute mer nappi espadon hmm. maa bi ma téye maa ko jàpp moom moo jàpp beneen bi mais ki yàgg na boobu j'étais on jeune avocat nag xoolal ni ma xoolal sama suréer ni ma mel. ah oui oui Adidas ma sol ni waaye naaj sa avocat. Ah, avocat. <laughs> moom pêcheur laa woon xam nga kii moom lébu la moom. géej moom fu mu nekk rek nga dem. waaw espadon te espadon dafa neex. dañ ko daan ñun nag xam nañ ko daan lekkee. cere. ah am na sama benn xarit. sama xarit. Ah. sama xarit le ministre Tidiane Sylla ah. Ah ak sama xarit mbay Thiaw. Mhm. bu ñu mosaan dem fële si nu mu tudd kayaan Hmm? espadon lañ fay wuti. Hmm? ñu suñu kenn suñu jabar yi tereel nu ko. Hmm? mare toog may dégg xam na li may wax cere <laughs> nag espadon ba sonn. ah oui ah boobu de il faut ma cere ma ah, digge du ko joxe man mii dig na ma ko ba taay te saa waxee rek. mu naan suñu ba tuuti bale la sànq kay la ñuy lekk suñu cere. gis nga waaw ma suñu ko bàyyi moom Euh, bàyyi ma def ci sama xel bu baax a baax a baax donc ndax ñu dem lekki euh, donc Thielès pardon boobu noonu vraiment bëgg naa ko ñam donc bii nag mooy ban photo kii maître Babacar Seye la hmm. mhm. Mbaye ah, Seye benn mhm. maître Babacar Seye sama parents yi la bokk mhm. dëgg dëgg mag mu ma bëggoon mag mu ma protégé parce que boo liiree samay mémoire yi am na si page boo xam ne maa ngi ko tuddee le complot da ngeen ko liir ba xam la ba xam lana loolu moo expliqué ne le complot loolu maître Babacar Seye mii ànd na Cheikh Moustapha Seck mi xam ne si moom laa prêté serment Dakar ak Sidi Karachi Diagne mii sama goro nekkoon bâtonnier seeti si président Abdou Diouf pour me protéger pourtant fekk foofu fekk na génn naa ministère de la justice. Mhm. mais nag complot fu ne la am. jàng rek ba xam. waaw ana livre mu ngi nii si la nekk. ah la génn. ah tey ba ma nee damay ñëw fii dañ ma téléphoné ne ma mémoire bi pare na. Ah, tey jii. Ah, yàlla xam na ne maam Biram Diouf. Uh-huh. moom jëkk gis livre bii. Mm-hmm. parce que ka ma yónni ne ko dina ne ko dama jëli ko. dama ko de boo si mm-hmm. maam Biram jox ko bosam. Mm-hmm. soog ma ko andil mooy xale bii ànd ak man. waaw ko jëkk a gis. liiru ko ba tey. léegi laa ko jot si guddi gi bi may ñëw fii. en tout bi may léegi. bi may ñëw fii la ma jox neuf exemplaires. kon daal si déclic daal la la ci la génne si la ah. génne. donc ce sera un wax naa ci lu bari nag. Mm-hmm. mais doo wax lépp nag. Mm-hmm. nit ñi nag seen xale yi mottali nag dëgg dëgg. Mm-hmm. ah <laughs> ko def. àddina àddina mu xam lépp wax lépp musiba la nag yow miy dem ba. lu may wax yëpp damay def attention parce que tam. Euh, bugguma wax wax même nit koo xam ne wóor na ma ne xam naa ne moo def lii. dinaa ne xam naa ki ko def jéggal naa ko. yàlla moo sedde loolu. une autre photo. kii bi may euh, assurer intérim mu président de la république la bés boobu nag maa doon président de la république du Sénégal. en tant que ministre. de la justice. ana PM. non amuloon ah. ñetti weer am ñu supprimer ko gouvernement bi continuer maa doon l' du chef de l' état kii euh, c' est le président Sam feu Samuel Doe. bi nekkoon président Libéria du coup d' état ko rey ko. Mm. dama ko teeru jot aéroport gis nga man ñun la ñuy mbiibal nii fii moom maay doon président de la république moom <laughs> dëgg dëgg bu doon benn minute sax def doon naa ko <laughs> benn minute boobu sax ñetti fan yi fi Abdou Diouf nekkul woon daal maa yoroon réew mi hmm. mu ngi nii une autre photo ak ak grand ah, ah affaire baa ngoog kii moom affaire la kii ah. amul ku jàng droit France muy avocat muy magistrat muy ku mu doon si jàng droit c'est bëggoon dox fii parce que fii mooy la salle des actes de la cour de cassation française cour de cassation française ak conseil d'état français mooy juridiction yi gën a mag ci France fii dañu fa demoon di def conférence internationale paa ba lay toog fële Edgar Faure la moo doon premier ministre Senghor Senghor secrétaire d'état la woon ci gouvernement Edgar Faure toog ne la ma toog si yow tam discours ba ma fa def keroog mu ngi si biir mémoire yi pour l'Afrique en disant il faut que les règles de droit qu'on applique dans nos relations internes on les applique avec l'Afrique war hmm. naa leen ko keroog c'est moom def naa ko ci livre bi ci mémoire donc quelle année 1985 maa sol costume bi Edgar Faure toog nele yaa solati costume bu rafet ah, ah si non ah, loolu laa xam yaa ko dàmbaliwaat rek solaat costume bu rafet macha allah léegi bàyyi naa costume bi ah, waaw mais li ngay sol rafet na gis nga bu dul waaye ji ànd man kon t-shirt laa fiy ñëwee. moom mi moo ma yedd. ah waaw waaw parce que temps yi dama jeune di dóor ay t-shirt rek <laughs> ba ma bëgg t-shirt bi mu ne waaw yow tam paana yow tam nag da nga <laughs> du loon moom. t-shirt bu xonk laay ñëw toog fii. mais nag li nga sol rafet na de. ah mais moom la ah, moom ma yedd wallaay rafet na te bi tissu. dañ ma yedd tissu noble rafet vraiment macha allah. dañ ma yedd oyof baax na vraiment. dafa doon ñëw sama t-shirt toog ngeen solo nii nag dee solo nii nii moom jàpp na la trop <laughs> maam Biram ñu ñëw ci euh, Vieux Diouf ñu ñëw ci euh, beneen photo. kii nag. Mm-hmm. def naa def maa rëcc photo bi moo ko fi àndee. xam ah, lu tax parce que bi monsieur le président Macky Sall def candidature 2012. Mhm. la ko fal. Mhm. lii si la bokk. Mhm. parce que bi ñu demee premier tour man candidat laa woon. ak ñeneen ak ñeneen. moom ak président Abdoulaye Wade ñoo génn war dem deuxième tour ñun ñëpp nag ñu farax moom. di ànd ak moom rek di campagne ak moom ba mu gañe si biir campagne boobu dama am lu ma def parce que man des livres de droit du Sénégal yëpp dafa. lépp sama bureau lañ koy defee. mu oo tous les étudiants du Sénégal les gendarmes les policier yëpp ñu ay milliers de personnes chambre de commerce faire del ma président Macky Sall moo ma sant jox leen téere yi ngeen di war a jàngee. Mm. fekk nekkagul président de. Mm. le candidat Macky Sall moo ma sant bu ma jox leen téere yi. keesu livre du droit au Sénégal yëpp ma mayee ko ba mu jeex édition bi yëpp ñu ne Macky Sall ñu jàngal droit moo tax ñu jàng suñu examen loolu dama ko boole nag. Euh, booy jàppale nit da koy jàppale ci façon bu mhm. jël samay oto jox ko def ci sama alal boole ci lii guddeeg bëccëg ma ne si nag ak moom sur le terrain kii moom loolu la bu ma sayoon sax du fi nekk daf ma rëcc dëgg-dëgg mhm. parce que li ma defal nit du ma ko wax amul njëriñ mhm. wante nag ci campagne am la bokk waaw photo bi boo xoolee ci kaw à à gauche mooy waa jooju ubbi bëj sama bëj yi ki taxaw ni ne ak karawaatam lii mm. ñaari ah man maa ngi nii si wetu euh, seega dugal sama ñaari loxo sama poche gis nga sama mm. style bi pële à droite baa dugal sama ñaari loxo sama poche mais tout à fait à gauche c'est mon frère Moustapha Ndoye avocat bu mag la tey mm. mais temps boobu xale la xoolal kanam gi temps boobu célibataire la xale bu ndaw la mais kii c'est ma famille à l'époque xam nga li doon sama famille man sama soxla samay doom samay jarbaat mhm. samay jarbaat samay cuisinier samay mbindaan samay mbindaan ñay raxas mhm. samay xarit ñooy sama famille ñoo bokk kër gi ñoo bokk photo bi ñooy bokk lekk gi ñoo yor samay doom sama famille yoo ngi nii première mhm. famille bi 1978 photo bi lool la dama ko fàtte mu et je man pense borom, que man borom njaboot laa. waaw famille laa xam élargie. famille je, je famille pense que africaine. dafa tekki dara. c'est ça. bu ñu ko bàyyee musiba dal du ñu tubaab. Mhm. damaa jàng tubaab ba ne ar di làkk tubaab parce que métier la. Mhm. sama métier métier tubaab la. Mhm. sama métier métier tubaab la. da ngay xam tubaab ba mu jëx tag mën ko sinon sa métier nga yàqu ci. mais nag sa moom dund dundu sénégalais pire la africain. ba mu mat sëkk. et je fais la part des choses. en tout cas c'est une belle photo. Euh, buy clôturer li nga xamante ni moom mooy séance photo yi ñu la doon euh, donc proposé euh, la famille est très importante wax nga ko yaakaar naa ne nit moom boo boo boo rejeté sa famille rek yaakaar naa ne voilà. sama sama nit wax duñu wax sama quartier yëpp sama famille la. voilà uh-huh, important passé lii de. Mm. nga kii fa ñu juddoo. Mm-hmm. kër goo fu mënti dugg c'est des centaines de maisons. Mm-hmm. amul kër bu dul sama kër foofu. te ñoo fa ne xam nañu. fa ma tolloo ak ñoom. ak fa ñu mm-hmm. toll si man. Mm-hmm. loolu ñëpp ay sama famille. Mm-hmm. la may yéene ña ma jur laa leen yéene. la may defal na ma jur peut-être defalu leen lu defaluma leen lu ni toll. mais lu ma mën xam nañ ne maa ngi maa ngi maa ngi seen biir maa ngi si jàkk yi maa ngi toog. lu xew ma nag tamxarit jeex tabaski jeex yëpp maa ñëw séddalee nar. naru tamxarit séddalee. moo jaadu. ñun dañoo am aada. fa ñu màggee dafa am lu fa nekkoon. kon kon ñun dugg nañ ci famille bi ñu dugg nañ ci famille bi. waaw waaw famille dafa am njaboot. njabootu dugg nañ ci famille bi léegi njaboot man loolu laa gëm. Mhm. li ñu cërale woon ci waxtu euh, daanaka jeex na maître euh, Doudou Ndoye vraiment kontaan nañ torop torop torop ci dalal la on n'a même passer et on a eu énormément de de de réactions téléphone yaa ngi yaa ngi sonné depuis tout à ñu bari ñi ngi toog. Euh, waxtu wi gis nga heure bi jot mais ñu ngi toog di seetaan émission bi am na kenn ku ma envoyé euh, message ne ma maître épatant donc euh, vraiment pour wax la ne que ñi ci peut-être ñu yor suñu numéro ñàkk suñu. numéro Doudou Wade tamit. Uh-huh. waaw Doudou Wade moom laa ci la doon ñëw. waaw mi ngi seede ni li nga fi wax nii bëri na yu mu ci seede ni moom. fekke na ko te dëgg la. c'est ça ak ab Abdoulaye Wilane Wilane aussi. Ablaye Wilane moom ba émission bi commencé ah. la ñu envoyé message. <laughs> j'espère que Ablaye Wilane dina ma dégg. <laughs> waaw mi dama koy waxtaane di ko xalaat. <laughs> di ñaan yàlla gis ko seeti ko. c'est ça ca mm-hmm. parce que rakk la. Mm-hmm. rakk xam naa ne bëgg na ma parce que wan na ma ko. bëgg na la de daf ma ko wan. mais envoyé message bi sànq. man Ablaye Wilane yow tamit. dëgg dëgg. dëgg dëgg maa ngi koy gërëm di ko remercier bu baax. si ni mu mel. ku baax la si lépp nag. Mm-hmm. parce que ku honnête la. c'est ku gëm la muy def la. ku baax la en tout ñi doon Doudou Wade moom sama rakk la moom moom moom moom mënumaa seede <laughs> mënumaa seede sama doomu bàjjen la c'est ça mënumaa mhm. sa doomu bàjjen daf lay bëgg par force parce que sa doomu bàjjen moo lay doon na wallaay wallaay en tout cas di la bu baax a baax doon sama rakk la di la remercier baax a baax ci ni nga ñu wuyu si vraiment une émission très très intéressante euh, mais daanaka bettuñu parce que bu ñu xamee client bi nga xamante ne tey jii nii moom la ñu am euh, ci ci ci Déclic en tout cas di la bu baax a baax maître Doudou Ndoye Ah, man day li ma ubbee lay tëjee mm-hmm. sama warugar mooy si yéen jàppale Youssou Ndour ndax fa nu jaar maax moom mm-hmm. te du ma fàtte man démb mm-hmm. dañu àndoon ma koy jàppale dama koy jàppale ba faw ñaareel bi dama war a jàppale journaliste yi parce que rôle bi ngeen di joué dafa am njëriñ foolee ñu oowoon nañu ñëw pour seen métier mën a gën a taxaw man daal euh, loolu lay tàggoo wax nit ñi. di wax ne dëkk bi civilisation la. nga baal ma wax phrase boobu. ñaanal naa jabar sama benn rakk boo xam ne yàlla na ko yàlla yërëm ñaanal naa ko jabar daaw jéeg. bañ ko mayee ku nekkoo def discours ba ma waxee ma ne leen man daal doon lu ma jaaxal parce que dama mel dama yëg ne Sénégal civilisation la. kon du dëkku culture dëkku civilisation la. Mm. parce que il faut attention les tubaab bi disent la civilisation française la culture euh, la culture mm-hmm. sérère mm-hmm. attention les mots la langue ouais, française ouais. dafa subtile ouais. la culture c'est réductrice aspect bu ndaw la la civilisation américaine la civilisation chinoise la civilisation africaine sax nañu ko wax de mm-hmm. toute l'Afrique dañ naan la culture bantou la culture ivoirienne la culture kaki la culture bleue mais Sénégal dafa am civilisation foo manti dem Sénégal ñoo bokk li ñuy def ñoo bokk aada donc civilisation boobu ñu nekk ñëpp xamante ñëpp bokki sëriñ ñëpp bokki prêtre ah prêtre yax sëriñ si yëpp ñooy suñuy kilifa. Mhm. ñu bokk lépp bu ñu mayante jabar fu mu mënti doon même phrase yi ngay dégg. Mhm. ngir yàlla nañ xalaat suñu dëkk. Mhm. jàppante jàpp suñuy njaboot liy indi histoire yu grave yëpp ñu wàññi ko def si attention dialogue waxtaan dialogue lu nit mënul defar amul parce que yàlla ñun la fi teg de golo yi ñoo leen di commandé xar yi ñoo leen di commandé nag yi ñoo leen di commandé kon ñun suñu bopp amul lu ñu mënul def bu ñu nangoo waxtaan mm-hmm. nit mën na lu ne mais dialogue koy réglé nag mm. maa am doole lu ma neex lay def maa am doole maay décider maa yor pouvoir attention mm. doole fu mu am day jeex beneen ñëw mm. wante bu la rusee du jeex mukk mm-hmm. bu la rusee du jeex mukk mm-hmm. wante doole kooko ko ëppale mu ngi ñaan ëppale la ko da fexe ba nit ñi rus la. waaw mooy ba nit ñi rus. très beau message. c'est le beau message en tout cas yal na la yàlla may gudd fan. ak wér yàlla aussi bàyyi la suñu kanam. ba saa yu ñu soxlaa aussi ku ñu euh, mën a dolli xam-xam. koo xamante ni itamit mën nañ jàkkaarloo moom wax ak moom wax ñu waxu dëgg parce que c'est ça aussi euh, l'importance euh, ngay mën di teew saa su ne yàlla yokk la sutura euh, wérgu yaram incha allah rabi bàyyi la itamit suñu kanam comme nañ ko rek daal di waxee merci beaucoup maître Doudou Ndoye kontaan nañu torop ci recevoir la tey Charles. on n'a pas vu le temps passer. très intéressant. très dynamique. jaar nañ fu ne jaar nañ prétoire jaar nañ jaar nañ euh, si si deux heures yoo xamante ne passé nañ ko. mais mm-hmm. c'est pas étonnant na euh, Doudou Ndoye defe naa ñu ko bu baax a baax fréquenté ko am na lu bëri ñu jàng te defe naa tey Sénégalais yi itam am na lu bëri loo xamante ne jël nañ ko lu may retenir peut-être de cette belle soirée euh, ce qu'il faut retenir c'est la civilisation sénégalaise. Mm-hmm. waaw bu ñu xamul que ñun waa laaf lañu. Ah ñu xam ñoo jiitu ñu bëri parce que ah. laaf la la. ah oui ah oui waaw ñun ah, ah, kooku moom. ah man nangu moom ñu culture li boo culture civilisation la si biir suñu civilisation nag am na ay petites particularités. Mm-hmm. mais la ñu bokk ñun rek la. Mm-hmm. wallaahi la ñu bokk ñun rek ko fi am. jàmm ñi mën a am fii ak nañ koy doxalee. Mm. Sénégal dong nga koy gis. tout à fait. kese. kon Charles. Mm-hmm. ñun dañu jubboo suñu biir. wax jëfoo la féete nañ jubboo mm. ñu mën a defar jox leen ñu defar mm. réew mi ñu bëree ngi fi ñoo xam ne mën nañu sa tey dañu ragal ñu ngi toog seen kër mm. billaahi ñu ngi toog si xam nañu lu bari mën nañ lu bari bunt bi merci beaucoup Charles maa ngi maa ngi débaawat di <laughs> Abdourahmane Diouf aussi mi ngi lay nuyu docteur Abdourahmane Diouf benn mi ngi lay waaw waaw mi ngi lay mi ngi lay seetaan. candidat euh, président voilà c'est ça. président Abdourahmane Diouf donc mi ngi lay seetaan ak équipe am yëpp ñoom ñi ngi envoyé message vraiment ils sont très contents de l'émission Abdourahmane Diouf xam naa sûrement danañ ko recevoir aussi euh, ci suñu plateau euh, Déclic parce que c'est un très bon profil qu'ils vont également découvrir il faut l'écouter et voir au-delà donc. donc c'est un garçon cultivé qui est très instruit. très cultivé il est très euh, aussi en même temps très ouvert Abdourahmane Diouf di am yaakaar ne ni dinañ ko recevoir euh, fii ci émission euh, Déclic Mac. sant ko rek gërëm ko bu baax a baax maître. Mhm. cere bi waxaale ko de. déet cere ji kay du ma ci ah, incité waat nag. yow yow bu ndox sama lan bu ndox may xalaat cere ji nga wax. <laughs> léegi daal di jël rendez-vous balaa dem. <laughs> <laughs> attention hmm. maître ma soxna kan. Hmm. daf ma dig cere. moom tam. bu jotee nag. dinaa koy nan si boole. non non non nan leen ci. nan leen ci boole. Ah, cere yi ma soxna kat jooju. dinaa ko bu boole leen ci. déedéet man man nag. tey nag ngeen ne lekk si cere yi Mariétou Mbacké. ok cere yi murit. voilà <laughs> xam na lu ñu bëgg wax. man vraiment un plaisir. te xam naa euh, euh, vraiment grand léegi temps bi li dem bëri na mais livre bi. Mhm. Mhm. xam naa comme tey lay doog a génn ñu bëri mhm. yëgaguñ ko. politiciens yu mag yeeg yu ndaw yeeg avocat yu mag yeeg yu ndaw yi juriste yi. livre la boo xam ne ñu ngi lay ñaanal itam. yàlla guddal fan wi yokk wér gi ba tom 2 bi ni mu doone sa mébét mhm. nga bëgg koo am jotu bind ko mhm. yàlla may la nga mën koo bind ba mu génn ndax njëriñ rek lay doon mhm. loo xam ni danga koy dolli ci li nga fi bàyyi woon ndax man maa ngi fàttaliku xam naa yow fàtte nga ko sax texte yi nga bindoon yépp sur la liberté d'expression bi ñuy nekk école dañ dee édition Kafor mu dama fa ñëwoon benn jour nga may ma ci yaakaar naa sept la woon xaw ma huit mm. boobu yàggul bi may rangé gis naa leen benn moo ci manqué mm. muy bi ci gënoon a laal métier journaliste mu leer ma ni dama amoon xaw ma tamit fu ma ko dugal ci ci ah. bagage yi mais fàttewuma ko yi bii itam xam naa ne bu am njëriñ la incha allah taxu taxu ma woon nga indi ko waaye bii moom teg naa ci loxo xam naa. dama koy non non ñun ko de. nga signal ma ko rek. Mhm, ñu di la gërëm bu baax a baax maître gërëm ñi ñu doon seetaan ñëpp sant leen gërëm leen. merci beaucoup Dieynaba. merci Macoumba on se donne rendez-vous dans 15 jours incha allah avec un autre invité donc maître Doudou Ndoye mémoire euh, tome 1 donc le temps des juristes gouvernement. des hommes donc euh, mu nekk livre bi nga xamante ni Harmattan euh, voilà Harmattan moom moo ko rek euh, daa di daa di imprimé ci vraiment papier bu très très agréable donc moom nee na ci fin bi laataa ñuy indi photo yi am na lenn lu mu rekk daal di bind nee na pour conclure J'espère avoir, si la générosité divine m'est encore accordé le temps de livrer le tome 2 de mes exercices de mémoire consacrés au temps des libéraux, le gouvernement des choses. Donc il faut s'attendre à un autre livre, donc au tome 2, euh, bu maître Doudou et ses mémoires. Euh, ce sera très agréable euh, donc de lire xam naa ne nu ñu koy liiree mu ñuy neex noonu lañ la dégloo donc mu ñuy rek daal di neex en tout cas di le remercier bu baax a baax ci wuy si bi maître Doudou Ndoye on remercie Makumba et Charles Faye donc donc euh, d'avoir été avec nous euh, ci plateau bi Euh, pour euh, comme chaque mardi euh, dimbali ñu pour ñu drive émission bi donc merci à vous merci également à Mame Biram Diouf mi nga xamante ni moom moo coordonné émission bi comme chaque mardi pour ñu mën leen a tegal kon li nga xamante ni di ngeen ko mën a gis di ko déglu bu baax a baax Vieux Diouf remerciement bi nag teg naa ko sa loxo nga dispatché ko ñi nga xamante ni ñoom ñooy les hommes de l'ombre ñi nga xamante ne bu ñu fi nekkul itamit liggéey bi du mën a kon daal di antu di leen remercier bu baax a baax a baax a baax rendez incha allah mardi prochain avec euh, euh non dans 15 jours avec euh, un autre invité si émission Déclic jaa ngeen jëf